maa ngi nuyoo di sant di ziar live bi nag moom damay waxtaan ci diggante góor ak jigéen ginnaaw bu ma ambiancé ba pare ci lay nekk ma bëggoon nag yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen xam fan lay laay fee da ngay dem TikTok nga def sëriñ yi nandi tey min wi heure Sénégal ba heure bu ma saf ak heure bu ma neex rek ci lay bàyyi Sidy Diop génnee na woy bu bees ci Saint Valentin bi déglu ko. o indi teew naan ma danga reew te yow yaa ma reew ndeke li ngeen di bari noonu ngeen utee di ma réanimé um bi yaa ko tee bul bàyyi bébé leer na ma leer na ma leer na ma mi yaa ma xam li dëkk yi mbëgg leer na ma leer na ma yaa tax ma xam li bëgg ma gën a jàmm ngeen ñun ñoo di ci ni ñaari baaraam wallaay lii du neen noonu lii du neen bëgg na sa wet ba abadan naan ma danga réew te man yaa ma réewal dëkk li ngeen di bari noonu ngeen wutee di Mariane May bumbi yaa ko tee dafa bëgg bàyyi leer na ma leer na ma leer na ma mi yaa tax ma xam li nga di bëgg leer na ma leer na ma leer na ma mi yaa tax ma xam li nga di bëgg dañ koy daanu bu leen ñu yëngal waru leen ñu yëngal bu leen ñu yëngal waay waru leen leer na ma leer na ma leer na ma ni yàgg ma xam li dëkk yi bëggee lii la woy ci mbëggeel lu ci nit man naa mën na de Seydi jigéen ñi seen sëriñ bi ñëwati na nandi tey seen sëriñ bi ñëwati na bëgg rek ngeen xam li xew ak nan ngeen di doxee live bi nag ñun ñoo koy bokk man may wax yéen yéenay déglu waaye yéenay tapoter yéenay partager nu partager yi di gën a yéegee tàppate yi di gën a yéeg kër yi di gën a jokkalu ngeen may gën a maas may gën a wax lu am solo est-ce que jigéen ñi ñu ngi bàyyi xel parti bu am solo bu doy waar neex wooy wooy wooy ah. <laughs> non fu du mais nag ku fudd te bàyyiwoo sa xel yenn saa yi mën nga bàyyande ko est-ce jigéen ñi ñu ngi bàyyi xel bonheur bi nekk ci bégal jigi góor ba mu bëgg te doo ko laaj doo ko ñaan doo ko wax soxla maanaam nga jàpp góor bégal ko ba mu bëgg doo ko ñaan doo jàmbatu doo kebetu doo ko wax soxla bégal ko rek noppi mayee silence silence boobu importance am ndax jigéen ñi xam neen ko moo tax xam fi nga war a waxee xam ni nga war a waxee ak ban ngay wax ci jonge la bokk loolu silence bu am solo la su ngeen ko fàttee rek yàq lu bari lu ngeen warutoon a yàq barki seexul xadim mën nga am sa sa sa good heart xol bu tàlli ci bëgg góor wala bëgg def ak moom ngeen def ba pare nga wax ko soxla rek mu yàqu in his mind daf naan li nga doon def yëpp lii moo taxoon te wallaay taxutoon lenn rek moo la dal mooy ñàkk xam fan ngay waxee ak nan ngay waxee ak ban heure nga war a wax su ko defee lu baax lu neex li nga defoon yëpp muy yàqu mérite bi nga waroon a am njukkal beeg teraanga gi nga waroon a am mu yàqu parce que dafa jàpp ne soxla bii moo tax nga def ko kon bu ngeen bégalee seen góor yi ba pare maye leen silence bu ngeen amee lu leen naqari da ngeen koy denc ba mu soxlawaat leen ngeen tegal ko xarta xarta bu dëgër këcc boo xam ne moom dina xam ne dafa bàyyi lu importance la échappé waruta a nii moom da koy yëg da koy xam kon silence su ginnaaw bi nga bëggaree góor importance bi mu am nante jigéen dañ ko war a xam di ko maye mais lenn tamit bëgg naa jigéen ñi xam ko jigéen yu nante yi góor du projet du aim du objectif te sa mbégte saa yoo ko dénkee góor rek sa naqaree ëpp sa mbégte ci sa àddina bu dee góor gu la bégal mbokkam yi dem naan boo fi toogul xam su ma càmmeñ de munoo am ko mel ni moom di la sànni gré de yu sew yoo xam ne même boo sourire deep down inside of your heart you're not happy bégoo kon sa mbégte du aju ci góor sa mbégte mu ngi aju ci yow mbëggeel gi nga bëgg góor gi li nga koy defal na lay neex yow ngay bég ba ko apprécié wu sax yow ça sa mbégte na doon ci sa bopp del dem sport del dem liggéey del jaamu yàlla utal lu lay bégal moom su ñëwee doon plus bu ñëwul nga bég mais jël sa àdduna yëpp concentré ko ci benn góor boo lijjantiwul cuuraay bu muy xeeñ yaa ngi lijjanti xaalis boo yokkee dépassam di wax ak sëriñ bu la jox noot di takki fer yu ko bégal di laajte nan leen war a góor ngir mu bég waaye lii yëpp yaa ngi koy def moo la war nag ndax da ngay sëy da ngay jaamu yàlla amu ci problème mais en retour moom waay lan la def pour yow moom waaju lu mu def pour yow góor ak jigéen bu ñu bëggantee góor a war a def plus d'effort moo efforts góor moo ko war a def ndax buñ laalantee ba pare yow pare nga ci da ngay dem sangu ji mais yaa ngi ma bàyyi loo xam ne neuf mois mu ngi war a des ak man mën nga taxaw ñaan ñu may la nga jox ma dépasse mais ñaanal ñaan ñulug amul ñaan nokkas amul yaa koy def togg ba mu neex nga teg kon da ngeen war a xam ne góor du projet du aim du objectif it's not a source of happiness sa mbégte dëgg bul ci xaar góor te xanaa xamuloo àdduna toll na foo xam ne tey ginnaaw bi nga jàngee ngay dem di liggéey di amal sa bopp di foon sa bopp waaye amal sa technique yu ndaw sa yenn gel ak sa ay dildo vibrateur yu baax toog vibrateur bi moom du la wax lu la naqari du la taraayir du la duulal du la fen bés bu doomu aadama waree ñëw nag war a taxawee sa côté financière te nga mënal ko sa bopp war a taxawee sa mbégte te nga mënal ko sa bopp kooku day def extra effort pour am la yow mais su fekkee da nga vulnérable desperate seen kër xam na bëgg ngaa génn génn gi mënaloo sa bopp amoo jomi liggéey amoo xalaatu pexe liggéey li nga am xalaat mooy xaar benn Cheikh Ahmed ak duulam yu rëy mu doxaan la nga dem seel ko ngir nga mën a bëgg du sotti am say projet di xaar ko la doxaan ngir nga mën a bëgg du sotti da ngay ñafeel sa bopp parce que góor ak jigéen amul ku gën jikko rek la ñuy gënante inna akaramakum indallahi atqaakum waxul ni sa waxul rijaal du góor du jigéen kon neen génn ci caaxaan yi ñu ne jigéen ñu bari seen coono ñoo ko def seen bopp am na jigéen tey yu toog ci kër mu naqari métti ñu bëgg a tas mënuñoo tas ñett société bi lañuy ñuy ñaareel ba fu ñu jëm ñaareel ba nu ñuy def mais foo jëm ci yàlla <laughs> nooy def li la arrangé société bi c'est ma société bi da nga leen di da ngay xëy rek ne nii ñu ne waa CA mel ni nag kii nu mu réewee au lieu que ñu ne yaa ngi ñuy mbëllee dañuy passé li ñu waroon ñëw si sa réew man noonu laay dundee ak société bi maanaam au lieu que ma bàyyi la nga wax l'essentiel ci man dama lay jox wax da ngay ñëw naan waa ji cagala waa ji naafeq la waa seetaane la kii nanga man jox naa la loo wax dèjà <laughs> nga bàyyi ma man société bi da ngay xëy rek leen nii mbala mbala su ko defee ñu naan ay moom dof na bees di mhm. maanaam you shift the attention for you not to be the major topic of their discussion but presuming that you are not okay anymore baax na sénégalais yi noonu laay dundeek ak ñoom damay xëy def bu ne weng ñu ne kii wérul maanaam waxal ci wér naa ak wéru ma mais li ma ne man bu ko xam ba koy waxtaanee loolu dama ko réussir à pour cent jigéen noonu la war a mel saa yoo bëggee tas bul gestu xool société bi ndax sa naqar fekkuñ la ci gis nga société musulman bu ñu dëppoo woon dund ni jullit jigéen du sonn ci biir lislaam yàlla tere mais imam ba day xam noppi benn aaya rek lay wax góor ñi takk leen ñeent ustaas ba xam noppi sëriñ bi xam noppi sa yaay ñu abis ko ba màggat mu jàpp ne abis dafa normal naan la muñe sa papa day am complexe parce que xam na ne ni mu téegalee sa ndey bugut ku la ko téegalee danaan muñalanteel nag àdduna amul sol maa ngi lay ñaanal may sa pap li may bégloo incha allah yàlla dina la bëggal yàlla toog na seetaan ku gërëm ku ndeyam ak bàyyam gërëm mu bàyyi ko ñu rey ko mu dee mu medd <laughs> yàlla dafa faale loolu ay picc lekk ñaata saxaaba rasulillahi yàlla gërëm leen sulul dox ba xiif daanu dee picc yi di lekk ba seen yax yi fu ndox amuñ bàmmeel Seydina Aliyu Seydina Aliyu ibn Abi taalib ana bàmmeelam fan la ne rek ci àddina bu wér bu boroom xam-xam yépp dëppoo ne fii la Seydina Ousseynou Hassan te ñi ci mbaax ci ñoom lay donc faaw faw faaw faaw société sénégalaise nangoo am fulla ak fayda ci li ñuy def surtout jigéeni Sénégal beneen bi dama bëgg ñu xam importance su wujje en tant que musulman islam moo ne wujje danga koy accepter ci l'islam mais wujje amul ku mu neex waaye ci biir loolu ci biir loolu there is something very important mooy su la leeree ne mënoo ko lislaam forcé wu la ko bu ñu lay takk na ko he mu ne laa nga ne ko duma ma wujje mu ne waa nga ne ko indil seede dama bëgg ñu seede ne man duma ma wujje bu ko nangoo fu mu takkee sëy ba tas na daganut takkee sëy ba tas na daganut dafa xaram ndax ci sartaay sëy bi yàgg moom daf ko ci boole du signé na am seede lislaam moom gëmul signé bu baax na am seede nit ñi toog mu ne bokk na ci sarta bi ma lay sëyalee du ma wujje nga ne waaw mu ne waaw mënatul a tudd a takk waaye nag boo xasee ba dugg joxe wa sart lislaama ne dafa war a am jabar am nga soit soxna yoonu dañoo na ba ci moom na ko sa jabar dañoo bëri mënatuma muñ fase ma damay dem mu fase ko mu jeex mais mënoo muñ na ko may ma suma baat doomaraam yi fële lañuy ñuy taxaw dafa ragal wu jëm mais <laughs> ragal wu jëm mooy lan dama bëggul ragalum bëgguma en fait foog société bi comprendre que fii benn jeeg ak janq bu pare ragalul wujj da koo bëggul parce que mënuma comprendre benn koy nga ma koy jamb di jamb suma morom oh, bugguma mais ragaluma dama bëggul foo ñu comp su mel bu dee ñoom bëgguñoo comprendre loolu yow comprendre ne bëggoo demal sa yoon sa simple fukki doom nga fa am mooy seen baay bu ma mënee yor na yor bu mënul na la jox nga des ak yàlla mais bëggoo wujju bul fi nekk di wujjee ñu naan su ma demee den naan dama daw daw musiba daw lu sa xel nanguwul moo gën toog ci loo bëggul di toroxal sa bopp di traumatiser sa bopp ngir société bi ñu ne boo demee den naan danga ragal <laughs> kon yow yaa ngi prison société bi ñoo la jàpp en otage tii la bañ dëgër di la manipuler seen avi moo tax yow nga toog ci loo bëggul bu ko nangu bu ko nangu bàyyil beneen bi ci des moytu leen di sëy ak góor parce que nobu leen ko bëggu leen ko waaye mënal na la loo mënalul sa bopp ça c'est très dangereux góor boo ko bëggul da koy xam mais dalay bàyyi ci biir parce que ma amul lu muy perte mu ngi lay neexal di la yóbbu vacances voyage di la defal ay affaires man amoon naa benn jigéen ndeysaan dama ko bëgg rek naturellement daf ma daan fen ba ma xam ne mu ngi fen ma noppi ma bàyyi ko ci biir laaj na ma ne dafay jël appartement ma jox ko xaalis mu dugal ci business ba tey génnul fa mu dëkk jëlul nii topp ma ko ci dara léegi-léegi mu ñëw trois cent mille deux cent mille ma koy jox xam naa ne day fen xam naa ne soxla boppam ci la ne mais man dama ko bëgg naturellement te xamul ne dama ko bëgg li may frais ci moom chaque semaine presque million di joxe rek te boobu musuma ko teg bët billaahi wallaahi tallaahi teguma ko bët li ma gis si àdduna paasewul ñaar ñaar ñetti yoon foonuma ko raayuma ko tëddeewuma ko dama ko bëgg naturellement mais moom li mënoon a gañe la gën a intéressé ka mbëggeel gi ma toog rek di ko reetaan nit ki bu la bëggee di la defal million bis boo ko bëggee am nga fa milliard mu ngi mel ni bor boo fay rek su la nit lebalee million nga fayaat bor bi beneen zéro yokku na dix million nga fa am nga fayaat mu yokkaat beneen zéro cent millions feeg yaa ngi fay bor day yokk te noonu la banque di doxee noonu la social sécurité di doxee noonu la crédit di doxee fépp ci àddina ma toog di reetaan rek di di ree rek te dama koy defal defali mbokkam defal xaritam moom su jàppee ne moo ko toll mu ngi nax boppam ndax man umpalewuma jigéen te benn jafewuma waaye su ma bëggee rek bëgg naa ndax xam naa lan mooy mbëggeel te balaa may ñëw ci yow xam naa luy mbëggeel daf may leer ne man bëgg naa la sincèrement may jëflante yàlla ci yow. àdduna du yàgg ba ma gis la sëgg lu ma am jox naa la ko lu ma xam wax naa la ko yéene naa la mais gis nga ñàkk xam mbëggeel ak valoriser sa mbëggeel ñoom dañ ciy profité wu jàppee la benn ATM machine ku ñëw bees tey buñ jàmbatee lii dañuy fàtte jàmbat neen la te ci diggante lii ñii fen yañ cay fen duñ xam ne yow da nga koy détecté mais da ngay comprendre ne jigéen leen ku leen teral yàlla teral leen comprendre ne xale leen comprendre ne dañoo amul ñàkk day indi jikko maanaam fen ak tappale yu ndaw yow muy tappale pour am dara bonul mais pauvreté moo métti moo neexul quoi ma di ko jàppale ba yàlla xam ne maa ngi koy jàppale bi muy ubbi palaasam tàggoot ma yëgalut ma ba tey musul toog jël taam sax na ma Cheikh amee lii de yàgg jàppoon nii la demee naa la demee hmm. pour moom dama ñëwoon ci bunt nopp nopp ko defal naa ko ñaanut ma moo ko moom mais triant dëgg weesuwul nit ki di la jox ci mbëggeel nga xam ne dalaa bëgg bëggoo ko ngay jël ci buntu ñaanuma ko ko ko may mais da ngay fen xam nga ne lim la bëgg a tax bu la bëggu doon du la ko may moo tax jigéen bu diñ dëgg mooy bëgguma la téel sa alal yal na yàlla fay jigéen ñooñu mais it jigéen ju fi jongama góor jox la it yaa ko moom lekkal mais na nga xam ne nag yaa ngi lekk sans dignité <laughs> yaa moom sàccoo wax dëgg yàlla mais yaa ngi lekk sans mais jigéen ji ko leer na mbëggeel tax nga koy jox mu ne la baal ma ngir yàlla téye man bëgguma la kooku ku am dignité la ku xam valeur la comme jigéen mais ki toog leer ko ne bëggoo ko mu lay mbaraan nga koy jox ah <laughs> moo ko moom de <laughs> waaye de falaa mën a yem daal man damaa bëgg jigéen ñi daal di leen faral mënuma caa sori daal donc faw nit ñi di xam différence su ki la bëgg ak lu tax mu bëgg la loolu dafa am solo ngeen ko lan moo tax mu bëgg la nga valoriser mbëggeel gi góor gu lay jox yow ngay jël di nga mujj nopp koo xam ne moo ko ëpp valeur ëpp ko njariñ te doo ci am mbégte waaye moom bu fa jógee ci benn étape bi ci deuxième étape la jëm ndax mu ngi teral jigéen te yàlla daf fonk jigéen kon bul nangoo nekk perdant deux fois perdant bi mooy mu ngi lay jox xam ne xaalis bi nga valoriser dalay xeeb dalay yeb bu ko waxee ak bu ko waxul deuxième bi mooy yow da ngay wàcc moom day yéeg amul fii ku fi mbaraan ba tekki loo xam ne royukaay nga ci àddina gisoon naa fi ñu doon mbaraan ba am ci kër am ci oto daan voyage première classe di dem fu ne tey mënuñoo dem bu leen xeesal yàqut use neen family planning birth control ba mënatuñoo am doom opéré neen seen yaram bi ngir jekkaat ba léegi mënatuñoo dem sa doctor bu ñuy toog dañuy wengalu mënatuñoo tëdd lu ne ñu ngi ciy dugg parce que ki honnête di la jox alalam yow nga ñàkk honnête di ko lekk moom mu ngi lay wan ne gor la yow jaam nga gor ak jaam nag saa yi ñuy dund gor gi mooy gën a tekki jaam bi kon yéen suma xarit yi jigéen ñi nga xam ne mbaraan ngeen nekkee yéen ñi nga xam ne moom da ngeen dem tëdd ñu jox leen mbaraanu leen yéen moom tuddewuma leen baraan da ngeen di fayeeku seen ñaqi bajo ngeen di lekk yéen moom <laughs> yéen beneen dimension ngeen mais mbaraan nit may ma temps maa ngi xalaat sëy bi neen dugg fii neen génn fële di mbaraan di duul di fen di lekk xaalis yu góor yéen jigéen ñi koy def ngeen baal ma euh, yéen a ngi ci erreur yéen a ngi tooñ yéen a ngi tooñ sëriñ bi bëggut loolu ma dama bëgg jigéen bu diiñ ku nangoo liggéey ku xam boppam xam valeur am nga xam ne saa yi demee bay ubbi tànk yi da ko ubbi parce que daf ko sentir mais du ko ubbi ngir yaakaar dërëmu àdduna bajo amul prix maire bi noonu képp leen data yi waaye sëriñ bi nee fonk leen data yi loolu moom franchement parler franchement parler ànduma ci je ne suis pas naa leen torop nag lu bi ziar naa la. nangul naa la sa ziar te delloo la ko. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi li ma ne bëgg yàlla defal ma li ma saf. waaw loolu mooy yoon de nekk ci li la neex. ci laa neex. chaque jour dama lay suivre mais pour ma dugg c'est un problème dafa jafe trop. oh maa ngi jéggalu li nga nekk góor la rek mais jéggal ma. <laughs> man kay xam naa ne bu doon <laughs> xam naa ne bu doon jigéen dugg na bu yàgg. <laughs> yàgg na yaa ngi tëblu. <laughs> wallaahi laazim dama dama dama lay suivre man Souleymane Samb laa tudd mais sama sama PP bi sax yow laa ci def sa tur mooy loolu mais chaque jour boo bu live bi tàkkee rek damay damay damay jot live damay toog di suivre mais. damay bëgg a dugg mais day jafe trop trop trop. Samb Samb xàmmee naa la bis na gi tey saa yoo dugg. wallaay wallaay ay soxla naa la nag loo xam ne ni c'est privé envoyé naa la sax message si sa numéro bi envoyé naa la tamit si sa TikTok bi message. Ah. numéro bi defal ma sàmb rek bu ma bu ma paree nii dinaa la woo su may paree rek dinaa la woo. waaw d'accord c'est urgent mooy loolu noonu. jàpp si rek donc la woo rek naa la woo comme wax naa ko rek naa ko def. baax na waaw. ok. jaajëf Cheikh bi. jërëjëf. Hmm. bàyyi ñu sa baax. Allô? Oulay, Oui, comment tu vas? sopp la ardo borom naga ak meew yi yaa jongo ba bay wax <laughs> Yaa bu baax naka liggéey bi? maa ci lima neex <laughs> Ah, sëriñ bi kontaan nañ ci yow nag, macha allah. jërëjëf yow keroog ma ne la jox ma sa numéro ma woo waa mu jéem a takk gisuma sa numéro envoyé naa la kon man ki ma envoyé sama numéro la envoyé naa ci bi nga coupé live bi tàkk laa la yónnee génnal ci li nga ne no barke sëriñ bi waaye envoyé naa la ah bon ah oui gisuma ko mais xoolal xoolal xoolal maa ngi ci li ma newoon rek bougéwul dara yokku ci mooy ah, loolu mais nag mais nag ah, loolu da mais nag bàyyi ko rek mhm. mu lekk tuuti na yow tamit ñami bët génnee ko <laughs> loolu da ngay wax dara damay mu mu def loolu ba pare boo xamante deful dara tàkkul kii kay <laughs> eh, amee dara baalu doo ko di def ah? ko mérito na ko may ko tuuti na question ah yow kon comprendre li ma la expliqué ma ne la affaire du ut appart bi wala tout ça loolu dafa waxoon dafa digoon pour loolu su amee ba pare mu ñëw takk si léegi loolu ñu def loolu ba noppi mu indiwaat voilà te ñëw deful takk bi appart bi appart dafa wax demal ut appartement ñu saa après ma ñëw takk xam nga li wax. à partie bi yow wala moom loolu mooy suma question. léegi moom moo waxoon ñu jël ko kay. Ah, ah. léegi daal yaa ngi tëdd di nelaw mais moom du mos. non am nga man li ma neex yow léegi nag li ki nu mu bëggee tamit te takkul nag yow sëriñ bi yow yow di ñu lay ñu lay lu waaye ba pare te du te du mos yow lu tax nga bëgg lool mais lan moo tax moom tamit mu bëgg ay jël ay appartement te moom engagé mariage bi te moo ko engagé woon jékki-jékki génnaat ci ah, il faut nga wax ci loolu wax nga dëgg moom yow moom waaye da nga a na takk ci farataak na mu lew waaw ah, na doxandeem takk de na tàkk non du question bañoo ay kii nañu takk gis nga nit soo bëggee nit ah xanaa kee nit day man maa juum yaa wax dëgg man maa fen man man man maa juum yow yaa wax dëgg keppal ba mu dëgër dëgël <laughs> na fay luwaaye na yóbbu màkka na def lu bu bëggee ñam na takk su takkul na bàyyi point exactement ko bëggee jigéen soo ko bëggee jigéen soo bëggee mhm. da koy takk dëgg la nangu naa mais bëgg naa la bëgg naa la relation un an deux ans trois ans quatre ans bëgg naa la te nga yor ko nga mën ko vraiment je pense que yaa resté quelque la damaa juum yaa wax dëgg na tak mbaa mu doxandeem ca xaj ah, ok ah takk mbaa mu bàyyi waay li mooy la bëgg jigéen ñi te du ngeen leen takk fii ku fi takkut suma taalibe yi dañuy tëj bool bi doo lekk doo naan lu leer laa leen wax Oja Diop Oja Diop allo sëñ bi. Momar Diaw waaw. eh sëñ bi ziar naa la. waaye delloo ziar Diaw Fara. yaa eh, ngi am jàmm bu waaw waaw. maa ngi sa benn soppe laa. maa ngi soog a sa sa live nag. Ah, bon. ah sa benn soppe laa dëkk Kër Massar. maa ngi waxal lu la. yàgg naa la bàyyi xel nag yàgg naa la waxal lu la hmm? soob. wala waxal lu Safa di leen damoo. jërëjëf. waa doo bàyyi nit wax ba pare nga ñëw ko salaamaaleykum yow. waxal yow. ah sëñ bi sëñ bi. Ah, ziar waaw ah, maa ngi jégalu ah, man de sa benn so wàccal maa la gën a sonn Anta Ndaw si nga waxal sëñ bi oui ziar nañ leen Makan Makan yéen ñi nekk ci live bi yëpp yow ak ñi nekk ci live bi booleeg ñoom bi man ziar spécial la may defal sama naa la ziar bi spécial kon <laughs> yow waxal dawal sànq da ngaa wax sa <laughs> sànq da ngaa wax sa <laughs> waaw après nag damaa tiit ba nga waxee ba pare parce que man damaa toll ci degré ba nga xamante ne. yow doo ñu may jàmm nga ñu may jàmm nga ne sàmm wax ci degré mbëggeel yi. bi nga ñëwee ba ah. ci defe naa onzième bi la. waaw. wax bi nga xamante ne da ngay da ngay dof. yow boo oh. gisul waaj da ngay feebar. Cheikh Ami maa ngi lay nuyu ma la fayu ma la muy fanaane du nelaw deux jours yëpp damay xoole bu bët set. wuy ma. sa taalibe bi dof na de. waaw am na fay ma fay ma fay ma na doxaan dem ca xaj rek leen tas sëy bi naa la woon ay affaire yoon boo ko defee waaye bu ko tiñee day la koy sax ñu bàyyi su yam bàkkaar bàkkaar yàlla koy jéggal leen tas sëy bi mu di yem ci yoon soo pare pare na dara safuma man man suma taalibe rek lay toog bu yaa ma bëgg maa la man yow laa fa jeex na sa wujj bi yow lañu topp sa wujj bi bëri na wax neen ko sosal teg naa nga sa loxo neen ko sosal neen ko sosal ndax wujj wujj bi maa ngi seetaan laaj bi day seetaan laaj kay yow la ñuy waxal waxal waa ji mu ne doy burof mu ne doy burof mu ne da ngay làmb poos da ngay làmb mu ne den den la den koo jëñax moom kii la bëgg moom awa bëgg waaye na merci jërëjëf. jërëjëf day saf moo jaay. jërëjëf rek lay faral. tali bi rek lay faral. Cheikh Ahmed nokay maa ngi lay yaa ngi ci jàmm bu baax. oui maa ngi ci <laughs> waa numéro bu ma mën a jotee dama la de. gis nga arrêté nox arrêté yow fi ci loo nekk yow. Hmm. maa ngi nii mën naa la. yaa ngi jongoma ba tey wala léegi xaw nga ñaaw. ba tey maa ngi <laughs> maa ngi jéem rek. mën nga gars ñemewuñoo takk wala dañoo ragal. waaw jox ma sa numéro dama la soxla urgent wër na yàlla. 78 471 57 01 mooy sama numéro. su ma message dinaa la jot nest pas. ah waaw man ku message ma tontu la di yéex ak gaaw kay la ñuy wax mais dinaa tontu. daa war a gaaw damaa soxla urgent ba ak Serigne Saliou. waa defal ma nox bi del bind nox baby muy app affiché ci kaw ma koy gis maa lay woo. waa baax na incha allah maa lay déglu. saalihaat bu baax bi yàlla na sa jàmm yàgg ku la bañ yàlla dee. Hm. salaamaaleykum. maaleykum salaam kii góor la wala jigéen. ah góor la de sëñ bi. ah yéen tey ñëwee ma de xaw ma lan ngeen fiy def. non xam nga ñun moom yow rek dañuy topp moo tax tey xam nañ ne depuis sànq ñu ngi si suuf jëlooñu waaye dañuy topp sa ginnaaw rek tey dama amoon benn question bu ma bëggoon poser sëñ bi ndax xam naa ne macha allah yaay borom réew mi te gars yi ñëpp dañ lay déglu xam nga lu bari ci àddina léegi nag danga may may une rek ma doogay wax sama question ma tej sama micro am lu ma teg nii rek bu dee mën na nekk quoi nga jégal ma. waaw waaw moom lu fi def baax na te nga gaaw wàcc rek defal li nga def te nga gaaw jigéen ñi dañuy ñëw. waaw baax na. xaaral ma jëlaale benn jigéen man góor ñi yàlla ma yàlla musal ci ñoom ana jigéen dali suukaay <coughs> waaye góor ñi bari ngeen suma live bi tey daay daay dali waaw sang bi waaw maag yow ku gën a bëgg sa morom sang bi man maa la sopp man mi lay topp ba heure bi oh. sago bi bul def nii boo defee nii ñen ñëpp dañuy jooy ñun yow rek lañuy topp. mbëggeel daf may jooyloo quoi. yow rek lañuy topp sang bi noo def ziar nañ la. waaye delloo ziar luy sa participation wala sa question. yàgg laa sopp di la topp macha allah gis lañu ne nag tey moom faw ñu dugg ci live bi daal di fa daal di féddali ko di la won sunu cofeel ak di la mm. won ne daal ci njaboot gi lañu bokk. dëgg la. mbaa am nga suma numéro booy jokkoo ma man bu àdduna métti wala jafe-jafe yi tar. déedéet musuma ko am nag. e jël ko de jëlal personnel bi doo jot secrétaire doo jot ma Samba doo jot ma Demba man yow directement. macha allah loolu am na solo loolu dina ma neex. 78 471 57 01 man ngay jot doo jot kenn lu la métti ci àdduna ñëwal ci man may sa papa may sa sëriñ barki sëriñ Touba. alhamdulilah ah loolu nangul nañ la ko. jeex na. ñu ngi kontaan di rafetlu aussi taxawu bi ngay taxawu soxna yi ndax matuñu den ko mérito de te Sénégal dañuy sonnal jigéen de waaw dañuy sonnal jigéen te oh. dañuy defe ne dañuy dañuy foog ni loolu mooy affaire bi pour ñoom koo ci rendre service sax jigéen bi daf la yab dañoo xaw a diis daal ci góor waa dañoo xamut lu bari ci àddina nag doo leen moo tax jigéen ñi dund ñu daal dañuy sagu rek ndeysaan Mhm. waaye ak man di ngeen dund lu neex barki Sëriñ Bamba. parce que ñu yenn yi kenn dootu ko nangu. am na yoo xam ne léegi bañ rek góor ñi rek laay yàq musiba. musiba ëppoon ëppoon mu góor ñi la jigéen ñi laa yëkkati ca kaw ak xale góor ci suuf jigéen ca kaw man loolu laa bëgg. pour ñu commencer joxe cër. ah force de joxe cër bi force la. live bi moom xam naa ne góor ñi ciy dugg dinañ am yërmande ndax faw ñu topp la. Aji Ngom. dama lay jël hors antenne boo paree. Hmm. Aji Ngom bëggoo jàmm. boobooy numéro bi yow Delicious jël ko dégg nga 78 471 57 01. d'accord. jël ko rek woo man maay sa xarit dégg nga. waaw incha allah kontaan naa. maa la gën a kontaan. aha Zo Cash. sëñ bi. waaw. maa ngi jégalu de dafa am lu ma doon def nii rek. ok that's fine. dama am benn problème dama la bëggoon partager ak yow ci problème boobu noonu. ok ginnaaw yàlla yow laa yaakaar si sama problème. allahu akbar. waaw man ci yoon bi laa jaar ñëw Amérique. mooy Nicaragua. Nicaragua. ok. léegi am benn femme boobu bu ma dajal sénégalais. ok. léegi femme bi dafa am jëkkëru tubaab. amul dafa nekk ak tubaab bi quoi en fait nëbbuma ko. ok maanaam dafa am faru tubaab wala nekkaale. ba dafa am faru dafa am faru tubaab. xam nga xam nga tubaab bi fii dañuy nekk ak nii rek gars yi mooy loolu duñ la tag quoi léegi ñu nekk ñoom ñaar mais moom tegaluma ci dara. moom ndaw si ba nga ñëwee di bëgganteeg moom waxut la ne am na far bu mu dëkkal. waxuma ko. ok yaa uh-huh. dama seetlu saa yu waa ji ñëwee rek. daf may jéem a wax ma may ko quoi am na ko ganam bu war a ñëw après ma dem léegi nag benn jour faru tubaab bi bett ma ci gàll bi tëggal ma bersi bëgg ma mbugal ci gàll bi ma ma ma ñàlli parce que kay xam na ni américain <laughs> jaar ni ko rogwaar ngay doxaani ba tubaab fekk la biir këram ci biir ci gelam xaw ma ci dara sénégalais bi tagalu ma hmm. waa ji dafa ñëw bett rek waaye bëgg ma dugal ay ma. sey ngay football wala kii. non ma sax mais fekk na ma xam nga. échauffement yooyu voilà après mu ñëw rek commencé tàkk commencé bëgg yëngal man tamit ci gàlle xaw ma affaire yi nu mu demee ma seey. ñaali kay léegi après femme bi woo ma ba si kii boobu noonu ba ma si problème boobu femme bi woo ma di ma baalu àq. dégg nga di ma tegal yoo xamante ni doo comprendre léegi damaa bëgg xam yow lan mooy sa xalaat ci loolu ta femme bi man dama ko bëgg. ah. dama ko love. eh. waaw. ok premièrement. Mhm. duma wax ci mbëggeel ndax mbëggeel amul commentaire. bëgg naa jigéen bëggal goo xam ne it du yàq jigéen. Mm-hmm. mais waxtaan wax dëgg ca la te dëgg yàqul xarit. Mm-hmm. jigéen jooju xamul valeur ndax su mm-hmm. xamoon valeur am dina honnête. yow ngay sénégalais muy sénégalais nga ñëw ci dëkk bi jaar ni Nicaragua amoo kayit amoo social security number amuloo walking permit mu xam yoon bi ñaata million ngay def ak million yi pour liggéey ko Afrique nu mu métti nga ñëw mu am faram dëkk ak moom ci biir këram waxut la ci dara ba nga fay dem ñi la fay fekk buñ la rayoon tey du mujj fenn. loolu moo tax nag. kon ba saa ñëwee commencé aalu ñu songoo noonu rek ma barastiku tëb genn gaale bi ñaali kay ñaali yu wóor kay. maa ngi ñëw maa ngi ñëw léegi moom ndaw si. Mm-hmm. ñàkk a honnêtam degoon na sa bakkan ci xottu gerte. mu bëggoon rey. ñaareel ba tegu ci su faram ñëwee mu ne la may ma loolu yabaate ak xeebaate boppam la njëkk a yab boppam la xeeblu parce que góor gu la bëgg mm-hmm. sa far di ñëw nga ne ko may ma temps bu ko nangoo ak bu ko bañee yow xeeblu nga sa bopp yow mais yab nga sa bopp yablu nga sa bopp moom femme bi quoi moom femme bi léegi man mii ñu bëggoon nokk def ma si dara kon moom imbécile nga yow nga baal ma imbécile nga parce que imbécile dëgg mooy nangu loolu yow moom moom ñëwaguma sa cas mais dama la bëgg a expliquer que fii Amérique la mhm. yow soo jugee Nicaragua am nga yeneen priorité lu mooy jigéen mhm. moom ndaw si am na kayit wala amul kayit moom ndaw si teguñu si affaire de kayit yi quoi mais dañu nekk rek maak moom noonu mais moom mosuñu wax sax lu jëm si ay kayit quoi léegi nag la fait que moom mu nekk ci dëkk bi ba am fari tubaab dëkk ak moom dafa am appel la fait ndaw si dëkk ak fari tubaab ci biir dëkk bi yow nga nekk gan ci dëkk bi ñëw ci dëkk benn waxut ak yow mbiri kayit jëflante wut ak yow mbiri kayit kooku des naa bëgg sa avancement ci suma xalaat ñaareel ba tegu ci mu ñàkk laa wax exactement lan moo xew ci digganteem ak faram nëbb la ko ba yow nga dem faram fekk la ci kër gi bu la fa jamoon bal da ngay dee te du mujj fen ndax américain africain bu immigrant nga illegally to the country without any legal documents sa bopp nga doon indil problème <coughs> ñaareel ba tegu ci su faram di ñëw mu ne la nga may ko espace may ko temps kooku su bëggul faram bii respecté na ko waaye yow mi mu jàkkaarloo di la naan may mata fan la la teg that's the question I don't have an answer to maanaam yow mi maanaam far bi tax moom mu ne la may ma espace benn mu bëgg ko wala mu jox ko cër bi moom respecté na far bi mais yow mi muy naan nga may ko espace ngir mu nekk ak far bi yow laa xamul yow fu mu la teg yow <laughs> ak loo pesé ba mu tax mu ne moroom sa moroomi góor di ñëw mu ne nga may góor gi temps pour mu dund ak moom yow fu mu la teg lii moom xaw ma mais xam naa ne jigéen ju am fayda la jigéen ju am fayda ndax yow mi amul kayit amoo xaalis nee na la nga toog xaar tubaab bi dëkk ci dëkk bi mu dëkk këram mu bëggee ba sonn ba dem yow nga door a ñëw ngeen nekkaat su fekkee ne mës nga koo laal sa koy bee gën a dëgër bu tubaab bi su ma xalaat laa lay wax li ma gëm su dee mës nga koo laal yow yaa dàq laal tubaab bi kon koy la la toppee mën naa juum nag mais li ma wax man nii laa ko xalaate te anamu dafa dem ok ma jël keneen ba mu ñëw maa lay bëggee maa lay ziar. Pape Maguette delloo bëggee naka ko. ziar naa la bu wér naka taw feexe. delloo ziar mbaa yaa ngi ci jàmm. waaye maa ngi kuul ak delloo papa rek. papa. ok bu gën. ci sama waaj dama am benn question rek bu ma lay jox rek bàyyi la ak moom. Mhm. waaw. Euh, lii benn benn xale bu jigéen la nee na dafa am benn waay bu muy bëgganteel. moo ko waay ji presque li def ñu def un an presque un mois rek moo ci des ah, bareetul waaye nee na moom dafa bëgganteeg waa ji loolu waa bëgg ko nag ñuy ànd ànd nawle. waa bi mu demee ba koo takk yaay ji ne ko xale bu jigéen bi neexuma doo ko takk te xal te yaay nee na xale bu jigéen bi def ko dara amut ak moom problème xale bu jigéen bi ay teraanga la sekk ak moom te moom yaayam amul ak moom problème parce que yaayam dafa amoon keneen ku mu bëgg mu takk ko te moom parewul pour takk xale bu jigéen boobu mentalement te kii mu nekkal nii moom la bëgg a takk léegi moom moom muy laaj nan la war a def buggul bàyyi xale bu jigéen bi parce que ngor la ko wan ak fulla ak fayda moom tamit gis na loolu ci xale bu góor bi ba tax ni moom bëgg koo bàyyi te moom nee na famem xam nañ xale bu góor bi ñëpp ko bëgg te fi mu toll xale bu góor bu ñëwoon ñaan si ko tey tey tey tey ñun ko sa jabar a ngi nii te ñoom ñaan ñëpp ay jeunes lañ xale bu góor bi mu ngi am vingt neuf ans nee na moom mu ngi am vingt six ans man nag loolu dinaa ko laaj samay njaatige. lu ma ci xam dinaa revenir maa sa suuf di a déglu. jërëjëf doxalal. <laughs> ah wuyu ma wuyu ma wuyu ma. waaw wuyu ma. waaw sàngal ma mère bi sàngal ma mère bi sutura. d'accord sàngal ma ngi ñëw da amoon appel. waaw waaw maanaam li doon wax mooy. voilà léegi femme bi. Mhm. femme bi man samay famille xam nañ ko waxtaanoon nañu. ba ñu jël décision pour ma takk ko léegi ba ma gisee action boobu noonu te femme bi rek laa bëgg man sama live kooku rek laa bëgg yaa ngi dégg léegi ba ma gisee action boobu noonu affaire bi dafa ma jaaxal te ba léegi moom laa bëgg loolu moo tax léegi dama bëgg yow nga may ma si xalaat wala lan moo si sa xalaat te xam naa ne am nga si xalaat. non mais yow. sa niveau ñàkk bopp fu mu toll hmm. laa laa mënta xam hmm. ginnaaw bi la far bi fekkee foofu hmm. waroon laa dóor bal ci bopp nga rëcc su nga continuer ndaw si ne danga koy takk waaw xam nga xam nga tey sëñ bi gis nga jigéen bu fekkee danga ka bëgg bu fekkee danga kaa bëgg quoi yow kooku dan la jaral lu ne xam naa ne man moom buñ ma buñ ma génneloon koon instant boobu noonu dañ may rey mais ndekam daw naa ba rëcc amul problème léegi femme bi jëloon nañu décision pour takk affaire yooyu noonu yëpp mais man affaire bi dafa ma surprise yaa ngi dégg ndaw si woon na ma baalu ma di tegal yu bëre man tamit dama ko bëgg ma baal ko waaye léegi man damaa xaw a jaaxle ba pare tiit sama bopp man léegi nag comme que yow xam nga lu bëre ci diggante jigéen ak góor léegi dama lay laaj ndax ndaw si mën naa ko takk wala ndaw si mënuma ko takk wala man ak ndaw si fan nañu jëm. len de xam naa hmm. soo ko takkee ak soo ko takku takk nga jigéen ju la yab. parce que yabaate weesuwul faram di ñëw mu ne la may ma temps. Hmm. yabaate weesuwul nga dugg ci moom ci farata nga jugee ko Nicaragua mu nekk ci dëkk bi am góor gu mu dëkkal te waxul la ko ba nga xamal ko sa bopp. ak lu mën a xew su la ko sa mbëggeel jarale xamal ne yaa ngi takk jigéen ju dëgguwul mhm. parce que bu dëgg woon wax la li mu nekk jigéen ju mànduwul su jigéen ju màndu mënta boole ñaari góor en même temps ku ko def mànduwoo mais yaa ngi takk ku la yépp nag parce que xool la ba sàppali la na la sa moroomi góor bi ma nekkal mu ngi ñëw ma temps yabaate weesu ko kooku da la waaw léegi nag su dee danga koy takk sa njarawal jàmm waaye dinaa la wax ne right now fii mm-hmm. ci Amérique gi nga nekk sa priorité mooy toppatool sa kayit mun a liggéey li la fi indi woon gis nga góor bu yeggee fu mu war a yegg rek diriyànke yi waaxu ba ci moom que teraanga lay doon te diriyànke rek a moom teraanga waaye coono bi ngay investir ci ndaw si ni jaru ko waxuma jigéen jaru ko de ndaw sii moo ko jarul ndax waaye bu fekkee bu fekkee ndaw si man moom moom rek laa bëgg man moom laay gis man ndaw si maanaam pour te action boobu mu def sax garaawul parce que yow ah. xam nga góor bu bëggee jigéen xam nga nu muy mel day doon gaynde man ndaw si jaral na ma lu ne te man ndaw si rek laa bëgg. waaw. waaye léegi sa conseil laa bëgg parce que. Ah, ah, ah, aw ma conseil li may wax mënoo ko dégg parce que yow ni ma doon jàngale mbëggeel xam naa moo la dal yow yaa ngi ci yow yaa ngi ci huitième état bu mbëggeel yow fu mu nekk <laughs> buñ la noon ñu delloo la Sénégal ndaw si bu la noon dellu dangay dellu man xam naa loolu. waaw parce que parce que moom jar na ko. dëgg la dëgg la fu mu nekk nii. <clears throat> ndox mi ma xaar ma naan màndu màndu laay naan nii sëñ bi. maa la soo paree nga wàcc. xam nga man dama lay suivre lu bëri man dama lay suivre lu bari xam naa ne da am expérience yi mbir yi yaa ngi may dégg moo tax ma tegal la sama problème. mandu la yaa ngi comprendre bu fekkee yow. mais sama problème yow xelaloo ma si dara sëñ bi nit bu ñëwee wax la problème am da wara ko war a dimbali. bi waa léegi. waa léegi maanu rek ngay naan léegi amul réponse quoi question bi amul réponse billaay dama mandu yow. man xam naa ne jigéen yi rek nga jox bopp ko xam naa loolu mais ñun góor yi tamit am nañ si yow walla. dëgg la waaye sa cas bi maanaam dafa dépassé sëriñ bi yow listen here da nga jógee wa ndaw si fayalut mhm. xamut foo jaar mhm. yaa ñafe mhm. Sénégal ba génnee mi million bi nga doon ñëw ndaw si indiwut la da nga ñëw pour liggéey tekki dimbale say waajur nga ne woo yaay mbëggeel moo la jàpp waaw loolu moom dëgg la mbëggeel moom. man daf may mbëggeel moo la jàpp. ba tax na ndaw si nekk góor tàgg wut la yëgalut la ne dafa am góor te yow ba tey amoo social security number amuloo walking permit bank account sax xam naa ne amoo ko mënoo dawal amoo benn njëriñ ci dëkk bi. <laughs> léegi man la mën a téye man man la nëbbu lool nga dem ba xam ko jigéen ju ñàkk a honnête. Mhm. daw koo gën jege ko. waaye bu dee da nga ko jege ne pour dimbale ko sa affaire la du suma affaire benn étape bu wana of a genuine reason for you to walk away nga taxaw nga ne da nga ko bëgg d'accord da nga ko bëgg deuxième bi faram ñëw ci kër gi fekk la fa munoon a génnee bal roose la ko non far bi far bi armé wul ma dafa commencé kaas may génn noonu mu roof ma benn coup ma dof dof lu noonu rek. yolleeku rek coup bi. non benn coup bi xam nga ni dal la xam nga góor. léegi nag nga nga rëcc foofu noonu. Amérique ñëpp a góor. ma daw sa bakkan dem na. ndaw si xamut ne ba tey da ko bëgg. faram di ñëw mu ne la may ma espace ma dund ak moom mais yebaate hmm. daf ko raw. Ah. ginnaaw bi nga amulee kay def ko priorité. mu fen la ne amul far fekk moo góor a dëkk nga jugee ko ci état boobu góor fekk la këram waroon laa rey nga rëcc nga jugee ci état boobu ndaw si munta xippi bëtam ne da nga koo bëgg mu ne la may ma yow nga nangu loolu mu toogaan ngeen yóbbu waxtaan bi seen kilifa ba war a sëy faram di ñëwaat mu ne la may ma temps nga nangu mbëggeel mbëggeel rek moo ma daal nag wax dëgg yàlla sëñ bi sëñ bi man nag maa amul conseil pour mbëggeel wax dëgg yàlla maa ngi naanaat mandu jërëjëf dinaa wut solution mbëggeel wax dëgg yàlla parce que man moom damaa bëggante quoi damaa ñëwoon rek pour nga yokk ma xalaat. jërëjëf waaw wàcc wàcc wàcc suma bu fi ñëwati ci suuf. <coughs> laa ilaha illallah muhammadan rasulullah salama salaam kii lu dal. mami. Hey, waaw waay sàmba <laughs> salaam cheikh bi dama tiit alu xew ak ah, ki fi déggoon li dugg léegi di wax déggoo ah feebaru mbëggeel la nag buñ ko ko xeebal nee <laughs> nit kenn du ko xeebal sëriñam mais nit tamit kenn du ko xeebal feebaram li wax loo ci xalaat yow xanaa naan comprimé muñ rek te xam ne loolu la ko yàlla sédde luy sa participation wala sa question astafurlah maa ngi koy ree sax bëgguma ko xanaa nga gën ñoo dolli ñaax rek ñun jigéen ñi par rapport ak suñu relation ak suñu ak bon man célibataire la mais ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci néegu sëy ñu gën leen a ñaax ndax yow moom dañuy soxla say conseil macha allah. mais fi mu nekk dama muuma. waa dëgg mais comment faire. àdduna ni ku nekk sa problème. Hmm. mu ne da ko. <laughs> mais comment faire bu <sighs> <laughs> di bëgg naa jigéen bëgg naa jigéen ñi torop mais li c'est trop. comment faire. Hmm. man dama tiit. waaye yéen tiitu leen yéen Marème Sall yu tiitoo. ah awa. salaamaaleykum. ah maaleykum salaam. ah sëñ bi le cœur a ses raisons que la raison rek. buñ ko ko xeebal billahi. Marème man xeebalu ko ko de man aw ma ci waaye kii kaam Marème Marème nag Marème waxal sa càmmiñ dëgg nag. awa moom yow saytaane nga mën a le cœur a sa Oh, the good eye. barki Serigne Saliou man fu nekk nii nekkatuma Marème pour jaamu yàlla Marème maaleykum salaam waaw sëñ Amady ah dama tiit tey di ah, dama tiit sax man mi waaye nag suñu amet love is love. but what do you mean. but love is love. your career is at stake your life is at stake where the woman. I know I what happened but. that's not the big deal. she just loved the. then tell me Ami Ami please tell me what is the big deal let me know. but the problem is when you love somebody. uh anything can happen. wen buñ la joxutee respect déglul wax ji bu faram di ñëw mu ne ko may ma far mooy ñëw. Euh, xam nga loolu moo man bëgg naa bu ma ma dee ngir yow mais kii waa ji joxu ko respect ndaw si joxu ko benn fen na ko. waxul ko am na fa. moom far mhm. baa waxu ko ko. Mhm. mu ëlbateku far bi ñëw xam nga américain yi ak seen jigéen mënoon na ko rey. that's not safe number one that's not safe. amul document. safe sax léegi lii yëpp yëpp yëpp ba mu insisté ne da koy takk mee ndaw si moo waroon a ubbi nday bëtam yi xam ne kii da koo nopp. but uh, Ahmed let me ask you something that guy they play game with you. mbëggeel buy nit di jaayee bakkanam amatut ci àdduna bi jamono bi ñu toll. ah this guy just play game with you. non man sax non man sax waxtaan bi. non xaaral xaaral man sax mën naa jaay suma bakkan ci mbëggeel bu dee yow bëgg nga ma mu réciproque nga respecté bu dee jar na ko waaw bu dee jar ko man man dama am sama jafe-jafe ñëw di man tamit dama am problème amoo amoo nga am ami ah ma ne dañoo xaw a problème ba ak moom waaye ce que doo ko ah, eh, doo eh, naan eh, jël ma li yaa ngi amee duñ ko wax ci bu ma ti yokku kaa maa ngi naan maam maa ngi man tamit dafa am benn paa te di ma ko dóor nii man ni ma diisee yëre moom ak la ñëw dóor ma ko nga ne dafa am benn paa. man 30 laa am. paa am na 60 ans waaye samay mbokk ñoom dañoo bañ ma seeg paa bi ndax nee nañ paa mag la te man xale laa mais loolu est-ce que am na problème Ameth. non non non non yow sa lu ndaw la. Mm. Mm-hmm. paa bi bu la mënee yore. Mm-hmm. paa yaa dàq bëgg te ñoo ëpp yërmande ñoom agressif. Mm. te lépp doucement doucement leen koy def. waaye paa li mu bëgg ndax samay mbokk bañ paa bi juróomeel la ma bëgg a def samay mbokk nee nañ as gor. dafa xaram dafa xaram mënta nekk yow doo jaar nga. am naa problème te ma bëgg koo pare. na fase kenn boo ko ko jaralee mu dugal la ci ligne bi mais cinquième yow moom orzo nga di du ko compter. mënul ne. dafa xaram kon fu may waxee ji nii amoor. maman ah amoor kat xaar amoor li jënd sama kees. ndax man gis naa non dafa am ah. idée bu ma la bëgg a jox. moom bu fekkee ne nopp na la. waaw bu nekk ah. seytaane bu la gisee di ñu max ñu max. waaw li mu ne kenn dugal. merci waaw du ma ci am du ma ci am bàkkaar su ma ko waxee mel kenn bàkkaar bi laay bañ. non ban bàkkaar bu la takkoon ngay gën a nekk ci bàkkaar sa yoon nekku ci am na droit fase waxtu bu ko neex na jël décision fase kenn nga dugg mais juróomeel kenn du fi def suma taalibe juróomeel bokkoo. non non. Ah. da ngay génn ci naan tey wuti beneen sëriñ mais fii moom daayira bii moom doo fi nekk di nekk juróomeel lu la dal. na éliminer kenn. kon léegi dama koy woo ne ko kat bañu ma la waaye. amul woo ah ah doo ko woo muy am lu ko neex danga ko naan pare naa pour sëy. waaw mais dafa xaraamal juróomeel te xam nga ne man xajuma ci yow. donc seetal la gën a arrangé te yomb mu abal bëgg na ma moom jaral naa ko lu ne mais na génnee kenn wala mu génnee ñëpp téye yow kenn lu lii problème bi. yii amee bëgg naa ko nag. yii gën naa laa ko kër na jigéen ñëpp génn nga toog yow yaay taalibi naan di tamit nag ñëpp génn nga toog sëy sa sëy. dégg bi neex li ma li a digal daa am solo laax nga sama ngërëm ci li nga wax yeneen ñaari fan ñëpp dañuy vidile batterie bi ci wóor ba moo dul gaaw a chargé <laughs> yow fi mu toll nii ragal sax mais booli ko amet laa bëgg man man yow ñaari fan nga jàpp ko paa bi boo paree ah. ba paa bi moom lay wër moom jaral naa ko lu ne ki nga jotoo ko rappel moi sa ñële duñ ko am yow da nga xaj paa ah man de I know that that that all men love me so much I know oh yes he have no choice baby he have to love you ni nga mel ni nga jongama say as yow da ngaa jomb paa bi soo wàccee nag oyof ndeysaan sam mbaax ngir jigéen bu la ba war koo bëgg dafa war a dee na fase ñeenti jabar yi nga ñëw wala mu génnee ñaar yaa kenn ngeen wujjee tam comme ko ñaari fan màggat la bi muy xéw la ñëwoo ko yow xale nga nga am semaine surtout weekend bu ko bokk déggal lii noonu ay awma ay lantoo man doo nga moom boo clock outee ba pare. danga nga soxla mm-hmm. paaboo boo dendal mu lay dul lu neex ngay reetaan di kaf àdduna amul solo. nga man maa la bëgg yow yow dundal ba doyal. barki sëriñ Bamba lii laa gëm. dégg barki sëriñ Sall li nga gëm a neex. waaye juróomi jabar yow. amul dafa xaram doo ko fi def. su loolu ngeen nekkantu rek nekk leen. ah nekkantu. ah moo gën ngeen nga mel ni jabar nga te doo jabar di. <laughs> nga nekkantu ne da ngay nekkantu boo paree am conscience su yàlla moo gën nga tudd ne yàlla. waa léegi Ahmed foofu laa bëggoon a ñëw nekkantu bi tamit ma nekkantu bi moom doy du waaram yàlla. Eh, yow tamit paa yi seen bàkkaar bëriwul waaye yow tamit nag ah échauffement dañuy daanoo yow tamit. bàkkaar yi paa neex la raay loolu du njaalo bàkkaar la rek du njaalo. ah Seydou Njaalo. ah am na ah sëy kay waxuma sëy dama ne raaya. non du njaalo ah, du njaalo mun na la ñàkk a tëddee di boo mënee boor déglu sumay waxtaan bu baax am foo jàpp paa bi. waaw. oh my oh gi moom su nine one one ñëwut paa bi dee saw. <laughs> Mouhamed laa bëgg ba. ma ne ko oh my god oh gi moom bu bu sapeur pompier ñëwut paa bi faa ah. fayal. xajuma ci moom paa su ma ko lamsalee sax mu mu ne ma bàyyi sa lamsalee. Ah, ah, stop ah, yow ci kan nga xaj kooku laaj laajte ci kan. déggal lii. naa ma sa bëri bu doon eh, stop stop roon yoo ice ma ne ko waay. mu ne ma day make me feel something. oh my god. Eh, oh bëgg na kay. I swear to God ma ko rombee rek ah fees ma ne ko eh, stop bul def lii li baaxul. mu ne ma li nga sol la. mais nag maa ngi juum. paa yi américain yi ute nañoo paa yi fële xam nga fële paa cere ceeb diw diwle la ñuy lekk bokkuñ de degré paa yi duñu benn de ñii dañuy entraîné soixante ans tey boo ko gisoon moo mhm. quarante ans africain yam damaa juum de xarit paa bi daal xam naa ne lu fees na tubéy ji di tooy di di waaw fees waaw ah, boo leen rombee tubéy du diis parce que dañoo. démb ci guddi daf ma ne I want you to try me ma ne ko what mu ne ma I want you to try me. of course give him a give him a try baby give him a try. you want oh my God. but what about between between me and God. yàlla nag sa xarit la fii yàlla lépp lay jéggale yàlla sa xarit la. nu ma koy jéggaloo yàlla ba mu jéggal ma ko dama la dégg ñu ne mooy baax. astaghfirullah da nga koo fàtte. sama kurus laay jël rek def astaghfirullah. astaghfirullah rek. day setal nit ci bàkkaar gis nga fii kenn du juge kenn yàlla moo moom bàkkaar ah am jël góor goo takkonte wut nag mu loolu wóor na hmm, bum la laal dangay xool bagage yi raay foon mais bum dugal su dugal làmb naa ko ba xam ne baax na moom ah mook butéel bi moom ñaara des la kay ñaara ngëb <laughs> Ameth a bëgg barke yàlla ma nga téewaat mu des barke sëñ Tuba waaw e góor la ah séelul baalu ma la maanaam man buggoon naa la jël coroon sa may la keneen mais bana paa bi ngay séyal maa koy xutba te xam naa ne tamit boo koy foyee du gaaw a daanu danga koy foyee du waxtu ah xarit laaj naa ko na ko yu teg some medicine mu ne man no I don't take nothing this is natural moom laa la wax paa yi Amérique yi ñoo gën a dëgëru Sénégal yi ñëlee ceeb a diwlin ak gerte leen rek. mais paa yi he's the strong man he's very strong. then my baby you good what else do you want he's an old man he loves mm-hmm. you he's strong on bed the dick is good what else can you ask for. yes I have good dick and I have lot money. oh my God. kii soo ko mm-hmm. seetlu barke Serigne Touba yàlla na la déport yow. ah. dipote boo xam ne day ñaw da ngay xëy ñu ne la comme tey répartir sa lu bon taxaj bañ a la sëyal paak waaye juróomeel bi mooy problème bi nag juróomeel bi fu mu nekk ni sa juróomeel maa ngi xool bu ko daganal may ma loolu ba suba eh, am na xaalis maa ngi seet lu daganal juróomeel bi ma loolu ko kon am bëgg naa am sa numéro lu may def am sa numéro dama xamul imam Malick yi mais daal faaw daal ñu seet daal nu juróomeel bi daganee I wanna have your number how am gonna get it I need um, your number. You can text me your number uh-huh. Uh, on inbox. Then after okay. the uh-huh. you immediately. Okay, no problem. I'm gonna do it. Thank you, baby. Amal Thank you. I love you. Love you more. Okay. sëñ bi. waaw. yaa ngi si jàmm. <laughs> man de xale bi sa reetaan loolu ma mais ki waa ji ci dugg ku la bàyyi nga dagg na la cinquième femme nii ku la bàyyi nga dagg na la. dañoo bëri nag de ak ay ah, neen xool rek ba xam la bàyyi nga dagg na la cinquième position. dagg na lu de damay seet yow da ngaa jàng téere yëpp. <laughs> jàngu ma ko de wala ñu xool si yeneen téere yi ndax dagan. Ah, daga mosul dagan. Ah, maa ngi xool daal. mais <laughs> ma recherche. sinon ñu ngi seetaan say live man moom saa bu ma yeewoo. yow laa njëkk uh-huh. xool ndax yaa ngi en ligne man maa ngi lay woowee depuis Japon. oh my god. maanaam da ngaa sëy wala danga ngaa liggéey Japon. kan man dama liggéey si. amaale ah, fa jëkkër. kan man waaw. ah jëkkëru japonais wala sénégalais. <laughs> ah yow am nga jëkkër. <laughs> waa <laughs> non am nga jëkkër yàlla na yàlla barkeel. amiin màggal njaboot gi moom egg nga. amin ah man maa ne egg naa man ah. maa ne egg naa. di jooy noonu résultat la di. yaa ngi wax ma waxul de. Eh, eh loolu di jooy résultat la nag yow tamit nag. tamit léegi mënu nekk sama doomu mag wala sama. Ah, doomu mën na nekk de waaye tërë tërë di nga de xarit <laughs> tërë di nga de <laughs> moo yóbbee lii lépp. <laughs> mosuma tërë di. yàlla sa jàmm yàgg sëy bi barke. awa yow daal man bëgg naa la ba pare kon sëy nga ba kii awa yal na yàlla bari kii sama doom la yaa ngi may wax loolu ma waxul ne <laughs> yaa ngi may wax loolu ma waxul ne awa yal na yàlla barkeel man question laa amoon de question laa laaj ma lu la neex awa laaj la neexee man question laa amoon léegi damay poser question bi rek coupé nag dégg nga waaw waaw léegi man dama kiiwo dama dama doon laajte yaa ngi may ree <laughs> nga ne da doon laajte. <laughs> dama doon laajte. Mhm. ndax da ngay am si ba da ngay am bàkkaar par exemple avant ngaa dugg ci sëy nga ne da ngay da ngay peser daal da ngay peser marchandise bi pour xool ndax baax na wala baaxul pas nga séq ak moom rapport mais euh, nga xool daal. Mhm. ndax dugg daal normal na daal. Mhm. question boobu laa amul wéy ko ndax da nga am bàkkaar wala. da ngay laaj nga maa ngi xaar nga wàcc. voilà merci beaucoup. merci mon amour ci suuf. après dinaa la envoyer message euh, def naa maa ngi sa numéro. defal loolu waaye Eva après am naa ko poser fii aussi. defal loolu Eva. ok merci beaucoup. merci beaucoup. Euh. maanaam test bi bu fekkee ne. danga génnee kooyu waa ji fóon raay xool taxawaay be guddaay bi foye ko xool temps bu muy diire bu dee jeeg nga am nga bàkkaar bu oyof bu dee xale bu ndaw nga bu musta xam góor am nga bàkkaar bu diis parce que jeeg nag moo war a xool kooy bu ko arrangé ndax am na bu mu miinoon am na bu mu xam dugg ci see fekk mu nooy la tuuti la da ngay gaaw a tas yàlla encouragé wul tas mais ngeen raayante ba affaire bu jóg nga làmb ko xool dëgëraay bi xam nga seex yooyu bàkkaar la ndax waroo gis taatu mukallaf ci tey ko gis nga taatam raay nga ko fo nga ko mais njaaloo waaye am nga bakkaar man nag dugg ci sëy xam la may dugg am ci bàkkaar génn am ci tiyaaba wa at bahi sëy atal xasanata tamhuha moo ma gënal ba tey néew ma baax na mais man moo ma gënal laa wax visiter xool kooy bi xool taay bi xool ndax lii mën na maa dëj ci say wala mënumaa dëj ngir su ma duggee bu ma tas loolu ku bëgg say moo koy def yàlla mën na la koo jéggal ndax sa intention lu leer na boo bëggoon a fo da ko ciy jàmb mu laal ba mu neex mais foo taxulaa jub waaye nag bëgg nga certitude ci li ngay jubal bàkkaar la waaye bàkkaar buñ sopp la mu ngi mel ni luñ naan sunna mu àqara <laughs> waaw waaw ma ne waaw laajal ta wàcc yàgg nga fi torop yow dafa am lu ma taxoon a dugg ki fi fekkoon suñu waaji Eh, comment dirais li ma koy conseiller mooy. Ah, am nga conseil pour waa ji yow bopp ci taati kuy dem conseil <laughs> yow daal benn conseil conseil man daal man daal li ma ci xalaat mooy bu jigéen ñépp nag mais la plupart jigéen ñi li seen faiblesse nekkul góor gu yomb. Hmm. comprendre nga. déedéet la waa parce que tey jii nii par exemple man damay joxe sama vision par par exemple man man j'aime pas góor goo xam góor gu yambar genre aaro na di mm-hmm. lu ñu wax ñu ne waaw non non góor day dëgër bopp tuuti xaw a naqari deret oh. mm-hmm. ma jox loolu maanaam waaju daal li nga koy conseil mooy na xaw a métti ci ndaw si daal waaw na ko jafe tuuti ok mu am ko dina ñëwaat fii ci live bi ne li mu bëggoon am naa ko na ko jafe tuuti. mais su fekkee ne. Hmm. moom dafa bëgg ndaw si bañ war koo rey amul kayit mu bàyyi est-ce que kooku dina mën a jafeel boppam. Euh, gis nga nit ki àdduna am na fooy toll. Mhm. ci kaa yëpp nag. Mhm. soo demee ba caaxle même bu àdduna bi yëpp ëlbatikoo ne yow la yow la tey en fond de sa biir yow leen na nekk ni yow doo ci leen taxawal ci seetu nga gëm sa bopp nekk ni lii gëm naa ni dinaa ci réussir. Mm-hmm. est mm-hmm. moom. nan ku bëgg naa commentaire ku bëgg a commentaire mën ngaa commentaire. nanatu boppam xool. na essayé li ma wax mu xool mm-hmm. jigéen bëggul ku ko yomb de trop non. ok ko defee rek même lu bëgg-bëgg après sax mën na kii yow après mu fàtte la nekk ci leneen fi mu lay xalaataatee nag mooy fi mu demee ba nekk ci leneen. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. mais na ko xaw a jafe tuuti te te mu te mu am forte. waaw loolu daal laa amoon lu ma koy wax maa ngi wàcc nag bala nga maa xas <coughs> après naa la contacter ci suuf. defa loolu waaye non duma la xas yow kay jox ko ay conseils dem leen rek ma yoon <laughs> daal ah waa ji waa yàq na suma live bi waay. ah. Oustaz Ahmed. oui bébé. maaleykum. noo def. moo koy jënd ndax wax xale bu góor bi yaa ngi dégg gaa ngi réagir ci whatsapp bi ngi dégg kooku lu mu wax nekk fii naan noo tudd Fati Oustaz Ahmed Fatou xale bu jigéen bi lu mu dégg naa ko kay. dégg xale bu góor bi kaayam bi mënoo ko lijjanti ndax wax nga ko li ñu ba pare bu bàyyiwul xale bu jigéen bi bal moo koy fekk ci boppam yaayee maanu bu xale bu jigéen bi kii wér na ki dafa bëgg ñu ray ko man maa ngi fii Amérique. ah lii dafa ëpp. salaamaaleykum sang bi nuyu naa la maa ngi lay ziar bu baax a dem am contentement bu baax ci wax ak yow di jéggalu nag ci heure bi ma nee message parce que actuellement damay seetaan sa laay gis ngay joxe sa numéro rek ma ne ah, occasion la parce que yàgg naa bëgg am sa numéro mënu ma ko am kon su ma déggee ngay joxe sa numéro rek dama ci profité maa ngi jéggalu nag ci li ma jël sa numéro message la maa ngi ci jéggalu bu baax a baax dama nekk bokk ci taalibe yi rek bëgg xamante ak yow. Mhm. moo tax ma jël sa numéro. xam naa la yooyu jégalu nag bu baax ci dérangement. loolu def neex na ma. man mami laa tudd. mami maa ngi dëkk Dakar. maa ngi dëkk Pikine ku la yàgg suivre laa. mami maa la bëgg waaye bëggoon tamit gën a ma la laaj ay yu la laaj mais dama ne la ba pare. maa a baax a baax a baax mami mi am na yar de. waaw cheikh bi noo def ci loo nekkee. kuy sa benn di sama mbokku góor yàlla boobu laay waxaat rek man de sama xalaat man bu gàtt li may njëkk wax sax mooy yow est ce que kooku nekkul tooñ li wax est dëgg la moom. beneen bi li ngay wax bu nekkee dëgg ci yow maa lay wax ne la jigéen jërul rey sa bopp maanaam teraanga lu ñuy wax boo fekkee ak boo tal boo bëggee ndaw si ba ñu la si ndaw si nag moom ah kon du bëgg nag moom la doole dëgg yàlla man de bu naan man lu waa waxoon laa koy def de waaw wërsëg ci tànk la nekk te jigéen ñaa fi xëpp xëpp la ko jeexalu yàlla nga mm-hmm. waaw comme ni ko Cheikh bi waxee rek boo demee ba ndaw si di la wax naa la may ma damaa am gan foofu ñàkk rek respect amu fa te xam naa ne lu loolu sax da nga dund lu gën a pire loolu lu raw loolu. Mhm. dëgg la. salaamaaleykum Cheikh Ahmed Cissé naa def yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. mu ne dama doon. yéen ñi bëgg a réagir ci whatsapp bi da ngeen di yónnee seen vocal yi ci 78 471 57 01 dinaa ko play nit ñi dégg. bëggoon a jot bëggoon a jot trop. de fii Sénégal ba tey maa ngi bëggoon sa numéro ba sànq daal laa dugg si TikTok bi ma dugg sa kii ajouté sama bopp ci sa kii TikTok bi après demandé la sa numéro bu dee mën naa la jot s'il te plaît. salaam salaamaaleykum. waaw moom lii rek la wax yow waxal. waaw oustaz maa ngi lay nuyu di la di ma wooyee Cheikh Ahmed Serigne Nandite. sëriñ naan di tey sama sëriñ <laughs> maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar. maa ngi lay woowee Touba Mbacké. di yàgg suivre sa sa live tey nag am occasion pour dugg ci allo. sëñ Amath. man tey la am occasion pour dugg sa live bi. dama doon profité di jàllale sa numéro bi see mooy mënuma ko woon jël dafa xawoon kii am sa numéro. 78 471 57 01 ku léegi dinaa ko nuyu. 78 maa lay ziar bu baax. maa lay demandé appel la maa lay demandé pour nga jël ma si direct bi mais jëlul na ko mais yaa ngi si jàmm bu baax man de Sénégalais mais maa ngi fi New York. maa ngi jaar si micro bi dama bëggoon nga jël ma ñu waxtaan tuuti yow miy déglu vocal bi ci ban tur nga defee demande xaw ma ko xaw ma ban la aha soxna si yow nga ne. waxalaatal numéro bi maa ngi jégalu de. 78. 471. 57 01 loolu mooy numéro whatsapp bi. yéen ñi déglu ku ci bëgg a participer boo vocalé ma pilee ko nit ñi dégg ku ci am sutura boobu nga wax ma ko mais léegi dama koy dóor nit ñi dégg de di bàyyi live bi jeex eh, ki ma doon wax ne moom dafa def demande kan la ban tur la defee demande I don't know xaw ma

Ibader patriote à vie. Cheikh bi ziar nañ la. waaye delloo ziar suma xarit bu xataaral bi noo def. maa ngi nii rek di sant yàlla bu baax. alhamdulilah participation wala sa question. Ibader. waaw loolu suma Ibader. Euh, xale bu boobu noonu. waaw waaw mooy borom mbëggeelu bakkan. xale bu góor borom bi waaw pour man day day kaf loolu laa gën a jàpp. mais bu fekkee ni dëgg la aussi pour man jigéen jarul yu bari respect est uh-huh. ndax pour man jigéen bu la bëggee. du la ni may ma euh, man la soxla woon si benn cas bu urgent urgent benn situation boo xam maa koy dund ba sama di nga jàppale ma si tuuti rek. vraiment def la nag xam naa ne sax wóor na ma ne moom gars yi yàlla gërëmu ko mais am lu ko ma bëggoon si waxtaan ak yow ma nee dimbali maa ngi doon suivre léegi live bi ba ba ngay pare ok merci. si Ahmed Cissé Moussa Limé sama soppe sama waaje maa ngi ziar balam la dina ñaanal jàmm di ko sàkk ci yow di wax ne dama lay daal baax a baax di la ziare waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah. Papa Cheikh. Djibi la di la bokkaale di Sénégal. waaw ñoo ngi lay suivre bu baax di la ñaanal jàmm bu wér foo mu di waaw. waaw Cheikh bi ziar nañ la la bu wér. waaw si xale bu góor man de li ma koy mu bàyyi xale bu jigéen ñi. Hmm. te dem toog leneen. ah ñi léegi jaratuñu def yenn sacrifice. waaw yow laa bëgg waay. waxuma laa nag ay ñàkku bakkan. waaw moo sañoon nag mu bàyyi ko dem seeti leneen. parce que dëgg la bëri nañ ci dëkk bi. wallaay dëgg la. salaam. waaye kii moo am la amee maa doon woo doon la wax paa ma bëgg te am mm, soixante. ah. my baby waaw soxna si baal ma nga wax yow mi nekk ci live bi. waaw dama doon wax rek le respect est respect mooy lépp ci àddina te mhm. foofu respect amu fa je pense. ndax mhm. góor moom pour man boo demee ba mat li nga doon. Mhm. ak koo mënti nekkal muy sa copine que muy sa jabar ak lu mu ci mënti doon. warul am sañ-sañu di wax yenn affaires yi. merci. voilà c'est parce que bu la ko waxee yow yaa ko may. en mhm. plus euh, peut-être taxawaay góor bi nga war a taxawee taxawee woo ko. bu mhm. ñu naan góor bu demee bay taxawaay yenn taxawaay mooy matul kilifa. dëgg la de. góor voilà góor nag bu matul kilifa dañ koy traité comme góor bu matul kilifa. waaye yàlla yàlla may la gudd fan waaye barki Serigne Bamba. ak <laughs> Serigne Saliou amiin yaa rabbi. gudd man damay dee tey ci guddi gi yow. non doo dee parce que damay gudd fan yow ñoo bokk li ñu bokk. jeex na. mu ngi noonu loolu laa amoon lu may wax que voilà daal na góorgóorluwaat xoolaat doxinam. wax nga xoolaat ni muy doxaanee. voilà. asalaamaaleykum mm-hmm. ok au revoir ah. wa waxtaan wax dëgg ca la waay ku yónnee vocal léegi dama koy pili nit ñi dégg su ngeen ma soxlaa bàyyi leen ba ma pare live bi ñàkk ma sutura. fii dañ koy raay de. dañu mhm. mënti weesu dëkk ñëpp waaye dañ koy bal léegi. mu dee. war na yàlla comme ndox bi nga noonu dóor la góor na. allo. Cheikh Ahmed Cissé na nga def ci loo man la sa benn fan si yàgg naa la déglu. ndeysaan. depuis Sénégal. waaw depuis états oh, bi ngay wax nii lay wax nii ku góor ki jigéen waru ko jaral yenn yi parce ay jigéen lañ waaye nit boo ko bëggee moom la teg waru la di xaarloo may ma dama am gan loolu moom am na nuñ lay entretenir sa nga xam ne yow nekkoo ci dara jàppoo ci dara. allahu noonu daal. Hmm. salaamaaleykum Cheikh Ahmed Cissé maa ah, pour man daal gaañ boobu pour man moom li mooy day xaru rek xam naa ne fa aussi Océan moom képp ku koy bëgganteeg gero africain moom te fekk ni am na ku muy génnal ñu wax la bàyyi bàyyi woo boo demee da rek day xaru rek waaw buntu xaru lay wut moom mooy bu fa gën gaaw moom jigéenu Océan pour man moom da ngaa war a dem daal. salaamaaleykum wa rahmatullah Ahmed Cissé ñu ngi lay ziar seen waa ji day bu fekkoon man la day damay bàyyi ndaw si da mbëri la neen jigéen ñi bëri nañ fi naam jigéen ñi bëri nañ fi waaye góor yi tam bëri nañ fi waaye ah, fekkee bëgg ko daal na ko bàyyi dem dànqi neen góor du ñàkk fula góor da ngay sa bopp ah, waa jigéen ñi bëri nañ fi lool moom bu ko bëggut keneen dina ko bëgg na am fula waaye bu mu ko jaral bakkanam di ci des bu fekkee moom nit la moom góor ki góor du ñàkk fayda góor da nga am fula sa bopp. Mm-hmm. wallaay dégg naa dégg. sama sama sama xarit bi Ahmed Cissé man lii sama second nombre la mu bëgg nga sama ñaari numéro yëpp ndax damaa bëgg nga daganal nga xool aaya bi ñuy mayee juróomeel. waay bi dafa taxaw ci takk te nee nga duma juróomeel te man xam nga yaay sama lépp. sama second la man la amee. <laughs> ami mi xoolal eh ami man dama lay far nangu ci paa bi wax ji ja parce que yow paa bi mënewoo ak moom daal. say man foog naa mën nga mëneel daal. asalaamaaleykum Cheikh Ahmed. si si naa def na leen ci jàmm. maa ngi ci jàmm. man la sa ndongo bi bongare fëte ci Kaolack Ndanga. oh bongare. rajo eh, de xaw ma day foo xaw ma foo. ndaw sooy de xam naa bu ko toppee bés bu ko takki ma xanaa kon day continuer rek heure bu ndaw si soxla boppam ma ne ko may ma. waay ma kenn man lu ma la dundee moom. <laughs> bu ko takkee bu yeboo mu xaar lool. maanaam kii yow nga ne euh, bund. man de lenn rek laay wax waa ji des naa jàpp ndaw si de. Mhm. parce que bu jàppoon ndaw si jour boobu noonu du daw. daa waroon taxaw siisu comme waa ji. comme jigéen ngeen ko jaral kay mun na la perte bakkanam yi kon kay jurutoon muy laaj Cheikh Ahmed Cissé naan ko lu si sa xalaat. Ah. Ahmed Cissé war na ko xalaatam te bu guddi jëfee xalaat Ahmed Cissé kon kay yow sa xalaatu bopp doyoon na la. góor yàlla góor yàlla nga. dara jombale ci jigéen. rawatina nga nekk xale bu ndaw yi <laughs> wax dëgg yàlla dama sax bakkan nag jigéen bakkan dina ko tikkalante ah. inna lillahi. live bu neexee ni musuma koo def. waaw ah, sama ne yaay. <laughs> siyaar la ci loo nekk yaa ngi si jàmm baax guddi gi. noonu la Saxir Gaye. ngeen di déggante. Saxir looy def fii. waa ji dugg de man dama ko déglu man mais man dama xamatul lan laay commenté fu mu toll leen de dinaa ko ko wax moom. Mm-hmm. bu yeboo ay mbokkam saraxel ko de. moom faatu na ba pare moom. waaw ah, moom leer na ma naññ moom. Ah? mais nag dana gën a xoolaat daal. jigéen nag wax dëgg fi yàlla moom ñooy suñu yaay nag liñ capable moom ñun góor ñi. Cheikh Ahmed ziar naa la di par rapport ak live bi waa ji dugg léegi nii man daf ma jaaxal sax dama foogoon day kaf nag au début maa ngi reetaan foog nii da doon mbalak mais kii ku manqué dëgg la parce que wax dëgg yàlla jigéen ku jigéen ki ko cër respecté wu ko te respecté wul boppam ndax yow góoru léegi sama room góor yow mu ne la génnal sa morom dugg soo paree ma ñëwaat nekkaat ak yow ñàkk fay daal manqué weesu ko te wax dëgg yàlla buñ ko fa fekkoon bu ca deewee dafa xaru moo ki xawul ñëw bopp benn àtte na live bi bi rek après ñu déggante xam naa suba lay doon ndax fii muy bëgg a guddi. loolu suma yoon. waaw mais boo kii ci live rek suba après ñu déggante ko. yem na maa ngi New York fii yaa ngi fii New York mën nañu gisee. fi nga nekk. bàyyi ma. man de am naa soxna waaye. waaw. li may dund a moom nii daanaka bañ a am soxna ko kenn. hay. mbokki Tuuba la nag. waaye maanaam soxna si. damay jooy. benn maanaam ki may sama bàjjan la sama papa. may leen ma ma jooy may ma ma kilifa lool. te maanaam. te mu ngi saxar mi wax ak yow nii. maanaam mu ngi mu a euh, te sama yaakar kilifa moo tax ma dugg ci. Eh, waaye nag aw ma waaye nag. maa ngi ci maa ngi góorgóorlu di muñ ma jooy waay mais man damay toog toog naa parce que boo dee xool chaque mois huit mois yoo xam ne sama soxla si du ma nuyu du ma rombee du ma faale sama yére du tilim ba fóor ko du yëgati ndox may ma naan. ah du ma génn ba ni ma génnoon nga foo ne du gis ba nuyu ma du waxtaan man dara. <laughs> te am naa moom benn doom. jooy kay waay mais léegi. jooy. moom loolu mooy def noonu. ba léegi après yaayam jël ko foog daf ko ci wetam. xam nga léegi yaayam. man jooy dama force ba su ma jëm moom daal dara. léegi lépp nee na daal moom moo ne ko comme da nga amoon doom da ngay faju weer toog parce que ay ay weer yu bëri sax ba ni may wax ak yow nii sax. wax dëgg yàlla nekkul tëdduma nekkuma ak moom. jooy kaay ñu ngi instant bi damay tëdd fii mu tëdd fële mu mel ay noon daal loolu daal jaaxal na ma lool si jigéen ñi daal wax ci sa jigéen bul bul wax ñi bu ci boole jigéen ñi yow amoo commentaire sa audio. damay jaar Mbengue maa lay ziar Serigne Nante ziar di la bëggee bu wér a gan gi dugg léegi maa ngi koy déglu <laughs> ah ma <laughs> wax la leen nee ma waxal ma wax. na ko ay mbokkam saraxeel te wutal ko ay perkaal toog di ko xaar. Ah? bu dee li muy wax dëgg bu dul dëgg nag mooy loolu mais bu dee li wax dëgg la fi mu toll nii wax na ba dem mais parewul ci raag bi gan gi dina ko fekk mu toog mu ko góon wala mu dóor lu ko góon maa loolu waaw jigéen ñoom xaalis sàcc seen xaalis sax leen gënal jigéen te man sama problème mooy nu jógee bu Sénégal ñëw ba fii lan la cee jigéen Sénégal maa ngi jigéen ñëw ba fii jaar ci Nicaragua bi dégg lu ne xajoon ca ngir ci yàlla teral la. nga ñëw ba fii di topp jigéen te wax nga ko ci biir wax neen ko tey mm, fekk nga ko fekkante nga waa waroon moo doon laa dóor goon la goon kon mooy ko ne yow yàlla jaar na la ci yoon yi taral la ba nga agsi nga war na deewaat tey mu taralaan la mais xoolal bu ñettee day toog di la seetaan danaan kii mën naa demal boppam day toog. Eh, ñoo ngi lay ziar naka yi tey yaa ngi si jàmm naka tey fii ànd ci. waay waa ji nga mujj a teg ojoom nii kii ñàkk na fu de kii du fase kii am naa eh, waay ay takk sër waaye wa du ñëw dem na ang rongoy xaar fa jooy jooy mu ne du ma ñëw rompoye métit jooyam musuma am life mu mel nii suma àddina man nag Amel dama am problème problème bi ma mooy góor ñi di wax nii ñoom what what is the problem. ami live bi nga xam ne jigéen ñaa di fees dell bu la kii bëggul keneen bëgg la lan la seen problème. ami ñëwati ami. bañ nekk di di di jooyal ay jigéen ak a topp ay jigéen ñoo na ko dof. oui is live. ami ah man damaa gëmul lii sax est ce ma ne ko suma ami mi say na. affaire bi liñ ci sànni de lenn rek la mooy que góor moom da xam ne góor nga quoi te bu njëkk a jigéen mooy ñëw di topp ci kaw góor mais pas góor di topp ci kaw jigéen ba mu lay jaral ñuy ote sa vie quoi ci loolu te en Amérique moom yenn yi boo defee rek pour ñu jël sa lu yomb la ci doon. kon nag li ma koy conseillé mooy mu bàyyi kooku dem seeti leneen àdduna yàllaa ko moom de. dëgg waaw waaw. billaahi. barki sëñ bi waaw cheikh bi cheikh bi euh, nga yaakaar ne tamit waa jooju moom tamit ñu naan ko génneel sa morom dugg tamit est-ce que tamit liñ koy génnee moom tamit moom dëgër nam dëgërul <laughs> est-ce que laajul tamit. Eh. nga jox ko si àndalaayee. ah dëgg ah, tamit ah ah. ah, ah. kon nga ko jàppale ci ànd laay. xalaat la de moom bu defee effet. non xalaat la dina tax mu gën a dëgër. non xalaat la dëgëree kën xalaat la bay dugal xalaat la léegi ci biir loolu garab gi ngeen gis moo tudd régu ñëw na Amérique maa ngi nii Amérique garab gaa ngi nii ma téye huile la ak pommade léegi régu bi da ngay diw bii diw bi cinq jours laa la wax bu dee ci coppare nga ko def day duuf ba fu ko waaju saxee gémmiñam gi day fees teb mu naan mais pour koy la mu gudd rëy diis lii pour loolu la maa koy jaay rigu rëyal guddal kooy mu ngi nii Amérique li ma ci indi bariwul bu ngeen yéexee mu jeex rigu am na Amérique den koy diw ci coppare pour mu duuf même bu fekkee ne den laa xarafal dagg genn wàll nga bëgg coppare bi dundaat génnaat duuf ba pare fii ngay jël def ko ci bu dafa gàtt nga bëgg mu gudd bii la bu fekkee dafa gudd ba pare sew bi moo koy rëyal bu dee dafa dëng bi moo koy jubbante ba mel ni autoroute à péage ba neuvième sortie bi <laughs> mu ngi nii regu am na biir Amérique wax laay bañ soq a ngi nii barki <laughs> soq moom bu dee danga daan mballu ba sa siditi bàyyi nag nga bëgg mu dëgëraat nga yàgg naa ni garab bëgg a faju hémorroïde prostate jigéen da koy naan jigéen ju dul am envie nga xam ne yow de lay katt mais doo katt kenn da koy naan pour góor la ak jigéen raxas la ba nga set rejeunir la delloo la sa ndaw mag góor den koy naan góor ak jigéen den koy naan mu ngi nii. doy waar dama indi plus am bu ndaw bii moo am Sénégal ak Gambie bii Amérique rek la am <laughs> hmm, bii you know ah, bii la <laughs> maanaam bii mooy wax loo américain yi. da ngay dégg hello man nigga do doy waar ma ne ko do doy waar mu ne ma no I had this magic powder ma ne ko doy waar <laughs> means beyond imagination <laughs> mooy doy waar mu ngi nii <clears throat> ma demati ci vocal yi billaay xaaral ma jël ñi ci live bi sax baal ma jël ñi ci live bi xaaral ma déglu kii fàkkan fàkkan ba ma Cheikh Ahmed noo def yaa ngi saame sa waa ji ah, ko lu toog. Ah? ma kooku. Eh? kii daa mel dafa feebar. suma doom fakkaan Canada mu ne nga ñëw mu sëyil la lu neex am na kayit am na xaalis jàngkat la moom mu ne moo la bëgg. Pape Mansour Diop doo bàyyi di ma woo dama lay bloqué de yaa ngi ma gis may live yaa may seetaan yaa ngi yónnee vocal maa ngi ñëw ci nga forcé di ma woo soo ma waatee ma xaaral ma bloqué même nga dem man fu ñuy bloqué Pape Mansour maa parce que da nga insiste <coughs> naa la. bàyyi ma suma jàmm bul ma woo yónneel vocal dinaa ko liir mais bloc lii moo tax ba pare maa ngi déglu sa vocal. mu ngoog Pape Mansour Diop maa la bloqué ah dama la bloqué ba pare wax la ko bloqué naa la bëgg fàllu yaa ngi ma yónnee ñaari message supprimé ko su ñettelee ma bloqué la maa moom suma numéro. bu ma ba toolu Serigne Nante bi Serigne bu mag bi ngi siyaar lool nekk maa ngi fi jàmm waa ji moom borom jawar ji moom doy na lu xew bët expliqué wu carrément lu tax lu tax soxna si xelam ne ko si soxna si leerul de na ko leeral ko gën a leeral. xaaral ci live. ma léegi yow maa njëkk. waaw allo. waaw Ami Collé maman Asou nga ma tuddee. waaye doo wax nga ñëw ba fii di seetaan baame am mi ngi nii allo waa sëriñ bi xoolal ma pour mu agsi suba bu dee am na ci yokk fay waaw nga wax ma waa sëriñ bi na nga ngi si jàmm maa ngi si jàmm alhamdulilah waaw sama ñi ngi ñi ngi rafetlu ngi koy seetaan ñu ngi koy suivre bu baax waaye jërëjëf waay waaw waaye mais mais produit yi produit yi laa bëggoon xam ndax ndax am na fii ku nekk fii nangu noo ci jotee waaw kan mooy Babel Fom nekk fii nekk fan. non pour pour ñu nekk fii Amérique xaaral ma wàññi télé bi. man maa ngi Amérique man maa koy jaay. waaw waaw mais comme exemple comme exemple euh, man mi nekk Florida nu nu may def ba jot si. non Amérique foo mun munti nekk da ngay yónnee nit ki zel moom mu yónnee la ko poste nga jot ko sa bunti fii du Sénégal. waaw d'accord waaw léegi ci ban numéro lañ koy def. non danga may woo ci suma numéro xamoo suma numéro benn xamoo benn benn benn suma benn numéro. non non xaw ma ci benn gisuma ko fi ñu bind fi. ok mën naa la ko jox right now. waaw jërëjëf waaw. 929. 929. 867. Uh, wait wait uh, 9 929. 867. 867. eight six four two. waaw. nine two nine. eight six seven. eight six seven. eight six four three. man maa koy mm. jaay boo wootee man ngay jot nga yónnee ma xaalis ma paquete yónnee la sa bunti kër man maay jaay. d'accord waaw maa ngi la ci woo bu live boo boo paree ci live. non boo wootee sax du dugg mais su ma paree dinaa rappelé boo wootee du dugg moo ne pas la nekk. D'accord waaw su paree naa loolu incha allah. merci Ahmed maa ngi lay ziar ci loolu la yaa ngi si comme maa ngi seetaan sa live dama yéex a dugg quoi moo tax comprendre ma carrément. ah champion nu mu demee waaye li ma jot a dégg wax ñëpp li ñu wax mooy Cheikh Ahmed Serigne Nande ñu ngi lay ziar baax la jox sama cooy man daam benn kii bu ma bëgg a wax rek ci waajooñ dugg sànq tam doon wax ci soxnaam si. parce que bu fekkee tamit ay kilifa kooku may te it yàlla dogal na amul yëg-yëg ci moom amul yëg-yëg ci moom te ay kilifa ko mayoon nit nen la mën a def ñett ko mayoon foofu rek waxtaan kii ngeen may may. ne ah, la waa moom dellu ci moom gas na bàmmeel na ba pare. benn tànk bi na benn benn ndax am na loo xam ne moom xaru gratis la moom warala woon woo sax moom dafa bëgg a xaru ko dèjà bi doon beneen bi ci topp mooy ki woote waat léegi ba na ko fase amul bi ba xam lii ba xam laa non la kenn sonal nañu wax ci li ñu ñoom dañoo am problème problème mu bajal la ñu am nañu xaru ñun xaruwuñu. yàlla baax na vocal ba jeex na. kii sa dégg na de. asalaamaaleykum wa rahmatulah. eh grand déglu ma fi bokk. jori da waaw sëñ Ameth man dafa am benn cas fii nii keneen kan waaw dafa am benn xale bu jigéen bu bëggoon a takk quoi mais sama mbokk rek yow naa ko ne du ma ko takk ndaw si masaa sëy quoi masaa lekk na càng. léegi ndaw si ne moom mën naa boppam ma ne ko ma ne ko ko faaw ma laaj ko maaraa bi léegi ma ne naa ma ne su dee yaa ngi may déglu nan ndaw si maye boppam ci jumaa dañuy caaxaan rek sañ naa maye boppam te du tàggu kenn demal nga takki man mii boo ma wooyee ma takki sëy bi si cinq minutes. waaw yow. yow xam nga lu ma neex si yow. waaw. mooy doomi raam merci beaucoup. <laughs> waaye rek <laughs> c'est que léeg-léeg dama lay mere mais su ma xoolee sa kanam rek ay ree daf may jàpp. oh ndeysaan. c'est kanam gi ci boppam moo dëgg ndey kanam gi moo njëkk a doxandoo comme sa cootu ndey yaay bi rek benn lenn. yow sa dëjëw ndey rek mais sinon yaa ngi cool. waaye maa ngi cool mais nu mu demee. yaa ngi am jàmm. maa ngi ci li ma saf yow nag. waaye man maa ngi sant alhamdulilah. mais maa maa ngi lay béggee nag bu baax a baax a baax. waay jaajëf waay jaajëf. waay yow am na jàmm dundal dégg nga. mais merci frérot. ok jaajëf. jaajëf. àdduna amul benn solo yàlla ko moom. allo. waa kii kan la sama xarit. damaa xaritoo wut ak yow dugg fii di ñu baabeel faale woo ñu toppatoo wuñu. ba pare dama lay doxaan en yow dama lay takk yow. waaye eh de du de. man waa ah. la jàpp. eh baal ma yow laa ko foogoon. man la sa xarit bi. ah da nga may wax kan la. <laughs> yow tam ci loo ne. mu ngi nii ñëw na gis nga. yee <laughs> ah, réegu bi ñëw na. réegu bi ñëw na. réegu bi ñëw na eh réegu bi ñëw na. walaay. waa Ahmed. waaw. Ahmed euh, réegu bi nu may def ba jot ci. ñaar ngay jënd bul fàtte. waaw ñaar. ah ah yow <laughs> tam. nee na ma baa gi suma xarit bi. band bi waa. man foog ma ñëw maanaam buñ ko bu ko kenn takk te sëriñam ne ci réew mi. waaw buñ yaa koy maye. waxal waa mu dal ta tey sëriñ bi dafa tukki woon damay noppale ko ñëw ñu takk sëy bi. mais ka ca des moom foog mu utiliser ñaari régu pour mën a daw li ñuy daw parce que dafa gàtt. <laughs> tudduma kenn nag waxuma dara. non est-ce que duma jënd gi est-ce que duma jënd ñett wala ñeent. ah taalibe tam daf ko soxla. <laughs> sa taalibe soxlaw ko de waaye xam nga soxla naa ko de dégg nga. ah waaw. <laughs> yàlla baax na. waaye yaa ngi Alaska wala. non ñib si naa démb maa ngi Alaska. ah yaa ngi Alaska yow foofu la boo xam ne dix huit états laa war a dem fu ne ma am fa ñaari fan rek la koo non maa ngi waajaat tukki boo xam ne dix huit états la faaw ma ñëwaat rek la koo yeeg data yi parce que problème bu bëri moo ci am. waa léegi man dama dégg gars yi di wax kan ki dugg dama tardé lan la wax moom. kii daal nee na dafa am jigéen boo xam ne dafa jugee Nicaragua de. nekk ak gel bi gel bi nekk ak faram waxut ko ne dama am far. waaw mu dem ba yëg ko waxut dara mu dem seeti gel bi. Mhm. far bi fekk ko fa tubaab la tuut mu rey ko nga ni ma. mu jógee fa mu ne moom kii rek la bëgg. su waaj waree ñëw gel bi na ko may ma taam suma far bi day ñëw. te waxtaan leen ak kilifa yi ba waaj a takk saa yu waaj ñëwee mu ne ko may ma taam. takk na waaj a takk na ba ne ko bàyyi ko kii respecté wu la baaxul mu ne ma dama koo bëgg lu ma ci mën. waa déet mooy yow kii ah, kii lu ko dal. ah moo jaaxal ñëpp man man naan mandu. <laughs> mandu bii dama naan mandu bu te fii la ne ci Amérique fii. mu ngi Amérique Nicaragua kat la jaar moo indi boppam kenn indiwu. moom dinañ ko rey ci dëkk bi. Ah. ci tubaab la dugg kii wu waa ji sa nee na nen ko utal pergaal ba pare waajal ko daal mu ngi ci yoon yi dee fa na ko ko. ah ma beneen jigéen nee na bajo bëri na ci dëkk bi. waaw na ci bajo taba boobu. kii ce que doo jéem a contacter ay mbokkam wax ak ñoom. Ah, man dama tali mbokkam su ma gis nga suma réegu yi laay jaay su ko waaye jiwee man dama la war a mayee nga sëy taluma lim tal. comme moom ah, dama xam ne kii dara yàlla defal ko jàmm man daal bokkuma. waa Ahmed namm naa la nag. soo ma namoon woo ma bi bër setee woo naa la jëloo ma faale woo ma bu ma duulal naan ma namm naa namoo. kenn non non woo ma de keroog laa la gëj dégg. nga woo ma ah dem Alaska moo tax woo ma la. nga woo ma. suñu sëriñ yi yaay sëriñu ñu xale jigéen ñi de. maa ngi nii man bu ngeen ma ah, amutoon fu ngeen jëm. kese la. maa ngi jàmm rek ngeen di am barki Serigne Bamba. garab yi ni def ba jot ci. ah ko dañ seen bunti néeg. jeex na buntu néeg bi. bunti néeg bi leen koy délivrer waaye UPS ñoo ñëw teg ko ndànk. waa ji respecté ko après cinq jours nga gis ni muy dundee ñeme ngeen lu métti yàlla na yàlla doon leen jàpp. <laughs> non maanaam ku ñu war a dóor ngay ngay duufal yar bi la war a dóor yéen yàlla na seen jàmm yàgg. déedéet kay. ci <laughs> amet. ah caaxaan de. Ah. ñuy wax bu ñuy fayee riigu bi ñëw na riigu bi ñëw na riigu bi <laughs> te moom du wekki day daaj. ma ne riigu ñëw na mu ngi nii gis nga xoolal. ñaar yëpp la. ñaari ngay boole muy benn. Hmm. xanaa da nga koy jaxase. déedéet xoolal. Hmm. yi ngay dajji lii. waaw. pompe ko ci koy bi diw ko ba mu nooy da ngay gis siddit bi ubbeeku na koy bi di màgg ci saa si day jóg. nga ubbi bii. Mm-hmm. taf ko ci. waaw parce que xam nga diwi kese ci koy day tax der bi ñorom ko bii mooy tax der bi nag fulleeku xam nga mooy koyu liis nga xam ne boo ko génnee sa xol bi sedd xam nga may wax. waaw. ah doo innocent nag. xam nga yi may wax guddi lañ koy diw xanaa. <laughs> ah. lii du yëfi bëccëg de guddi lañ koy diw. déedéet suba teel nii da nga koy diw may ko benn 15 minutes koy bi dund nga bàyyi. waaw guddi gi su ngeen defee ba pare. mu dem raxas ko ba mu set diw ko bàyyi ko noonu taati neen lay tëddee ci lal bi saa yu yëngatu rek koy bi yëngatu. ba ba ba yëpp xam nga koy dëgg boo yeewoo dafa war a yeewu. waaw ni yeewu ba pare kooy bi yeewul problème mu ngi commencé am ci kër gi. baaxul kay. Mhm. waaw bu yeewoo pour nga xam ne yeewoo ne dafa war a ne jodd nga ne ko nijaay xale yaa ngi ñëw mu xaw ko képp duraate ko goos dugg ci wanag bi suturaal boppam. waa dëgg la de. su bokkuma la góor gu yeewu si sidit yeewul. dëgg la da nga koy diw daal ba affaire yi fa fa mu la neexee rek nga arrêté ko. waa soo diwee ba kooy bi tooy bopp bi ba nga xam ne yëpp tooy na nga bàyyi ko dangay ngay gis siddit bi di génn xam nga kooy soo gisee muy màgg siddit moo koy màggaloo day ubbee deret génn. moo tax kooy bu koddalul siddit baa noppi deret ji wàññeeku mu tuuti mais boo koddalee siddit baay ubbeeku deret ji ñëw mu yokk xam loolu xel la. Mm-hmm. léegi nag diw bi day ubbi siddit bi nii la war a yokkee kooy. déedéet kay. léegi nag boo ko diwee ba pare. Mm-hmm. nga jël pomade bi teg ko ci mu suturaan ko nag nga gis sa dari koy bi du am problème day duuf ba pare diis moytul ma koy bu rëy gudd ba pare diisul bu pompé doo ko yëg dëgg la léegi nga eh? dajee ndaama yoo xam ne gudd la wuñ gàtt la wuñ waaye ay la jàppee ba bàyyi déedéet kay <laughs> dañuy maanaam dañuy yemle dañuy digg doomu médium medium size bi yee mais gis nga ñooñu buñ la jàppee ba bàyyi na la déedéet kay bu gisee borom koy bu rëy danga nga koy ciipu dem nga ni ma. ah yow tamit ah, mbir mi ñooñu nañ dara. Eh, eh, la ilaha illallah. muhammad rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> sallallahu alayhi mais gis nga ñi nga xam ne dañuy yemle. waaw. seen ndigg li day attan séddit bi séddit bi mooy puus koy bi. ñoom buñ duñ buñ daanoo dañuy gaaw a jub. waaw. ba pare gaaw a kodal waaw ñoom dañuy gaaw a foo fekk borom koy bu rëy yaa koy buqati génnee di màcc ba mu taxaw mais borom koy bu yem. waaw boo ko ne foo taxaw moytul ma ko oh. gaaw a koddal te te te oye. Oh, am telling you. <laughs> di ci a toog toog yu baax. ah yow tamit da ngay toog ba pare yooyu dafa neex sax boo toogee pacc pàcc gi bu la taxee day génn da ngay xacaare forcé rek roofaat dem sa yoon mais bu gudd. am na noo ciy toogee ba mu laal sa ax gi. noo baaxul ci jigéen. mën na laa rek déedéet kay. Hmm, yooyu boo ci toog nante maa nga ciy toogee da ngay mel ni ku koy catal rey ko wax ju bëri bébé est ce yaa ngi koy yëg mu naan la waaw su bëggee forcé rek dawal. waaw oh. waaw <laughs> dëgg la de sama sëriñ moom rek yaay coach suñu coach de yow tam sëriñ bi xam-xam de bari yow moo yow bokkoo ci yow am nga jabar Ahmed billaay ma barki Seexu Tijaani aw ma jabar ah kilifa gu toll ni yow amoo jabar man maanaam gars yi xam nga bu may guddale jaay luy guddal balaa nga oh. dugg ci man xalaataat ko doom de ah, ah yow de moom di gëwuma ni jigéen neex na ñeme oh. yaakaaruma benn jigéen wax na ko mu ne ma bëgg naa la mais bi ma la gisee ngay màcc banaana bi laa la ragal. dama màcc banaana. ñuy màccee di màcc banaana bi ma nekkee Maroc mu ne moom ci la découragé fa yàlla. <laughs> moo yey kat. déggoo ko nag en général en général foo fekk waxkat day gàttale du mën lu bari est ce que bokkuma ci ñooñu ñëwal rek mu ne ma. expérience la foo fekk kuy wax nii la ñuy defee ne le bëgg waxi kattante. lu ndaw lay yor lu gàtt te day gaaw a yi. mënoo ah, man daal dama bugg ngeen ñeme ma rek man man <laughs> daal ñeme leen ma rek man jàmm rek laa bëgg. Mhm. Mm-hmm. man kay dama foogoon am nga soxna ba ma naan kii de soxna mbaa du ko rey kii garaaw na de naka te amoo. aw ma. waaw célibataire gi baax na yow jàpp ko foofu rek. ah. yow mm. lan leen jotee ma yow. luñ wala man man ngay takk. In the name of the Father and of the of the Holy Spirit. Amen. Naga. Téem a Man bu ma sëyalut baalo ma la ko. Déedéet kay. Naga. ah loolu de dinaa dinaa dinaa ko dox. ah may de lenn la de kon de dinaa nekk xel waa ji de bu xëy na ne ko sëy naa. dana na waaw xamoon naa ko seen sëriñ bu doomaraam bi ngeen topp cagala man moo xam naa lu ne dinañ ma ko yegg. tey la ñuy waxal bari sa waajoo day dof dof wala bu fekkee day dof dof lu mbokk nit ñi wala day fo fii fii dafa am ay réalité de na xool li muy def bu baax ba wàccee ndey ak bàyyi am li nga bëgg ñëw ba fii ah bu bu boo mu xool li muy def daal man man daal encouragé mu ci li muy def bu boo mu xool fu muy teg tànkam sinon dañ koy rey léegi. kii moom dafa dof ku wér dina des. Cheikh Ahmed xale bu jigéen laay wax. ah rek amaguma kayit am nga jëkkër Sénégal laa waaw loolu laa yow amoo jëg amoo xaalis amoo kayit lan nga am pour nit war la see. na ngeen def Awa Fall Queen Khady. yéen a ngi ci jàmm. namm naa borom daaru yaa ngi ñëw nga ne seen data yaay yéen ak Ahmed Cissé dégg naa saaga bi yow sa muuti sëriñ sa doxa di sëriñ ak papaam ak yaayam ak maamam ak taalib yi ko gëm yëpp seen muuti comme suñ ndey nga saaga xam ne ne respecté woo sa ndey mu ñu waxoon sa caaya sëriñ ñu xam ne da nga bëgg sa sëriñ mais comme suñ day nga saaga yow sa muuti sëriñ sëriñ boobu noonu ki ko jàngal muuteem papaam muuteem taalibe yi seen muuti jëlal boobu continuer leen awa wax <laughs> man yow nu ma lay suivre da maa neex fekk góor ak jigéen ñi waxtaan yow kenn boole nga ne ni moo tax sa muuti sëriñ encore une fois sëriñ sa léegi yaa xam nga seen <laughs> xam nga Sénégal moom am na ñu bari ñoo xam ne seen xol day bon rek. waaw xamuñu foo xamuñu dara. ah. <laughs> <laughs> kon amoo sëriñ kay bu la saaga. bu ko faal. maanaam sa sëriñ jabaram. safullah. sa dambalu sëriñ. ay. maanaam réewantu ba réewantu ba dugg suma live di ma saaga fa dox mën a yem. non bu ko faale. awa faal loo bëgg noo wax. ah bu participation wala sa sa <laughs> ah. sama écoute. yaa tax ne la oguma. man moom dama lay béggee moom wax dëgg yàlla. Eh, yow lay béggee lu bari bari. Hmm? maanaam mbëggeel gi nga am ci man. <laughs> man maa ngi koy yëg. Mhm. ah noonu la loolay àddina. mais lan nga bëggoon a ah, participer ci waxtaan bi. <laughs> man waxtaan bi moom man sa kanam man may <laughs> def ay ree. Ah. awa Paar bi wala bu ma reetaan ba daanu nag yow tamit lii lan la mbaa jàmm ah. barki Seexul Xadim man xaw ma lu ma la war a wax man daal xaw ma la. maanaam daal da ma lu ma la war a wax waaw te yàlla rek sax. waaw sëñ bi maa lay ziar. yàlla na yàlla defal rek. xaw ma yoon bi moo jël xaalis bi parce que sept millions quelque def nañ ci ci yoon bi. ndeysaan. billahi te këyit moom mooy loolu fii xam nga këyit këyit yi gaawul quoi. ay wax dëgg rek mais moom tuba ji moom baax na quoi. ah man nice moom trop. Ibadan. waa bi. yes may dégg. baax. waaw dafa am ko nekk ci live bi Firdawsi génnal live bi laa la caga bi nga doon génnal yaa ngi ci live bi di déglu génnal ci biti woyu bee band bi. si nga ko ooyee wala noonu la tudd. si lañ koy oowee. ah sa si la yow. non sama si rakk bi la. mi ngi ci live bi di déglu bandi la. na génn oh, kon yéen feem yi ma leen di jàngal da koy xamaale. mu ngi nii di déglu dañ ko ne yaa ngi si ligne bi rek mu ne eh, eh, kii bi. sama rakk bi ne ko coupé ma dem déglu ji. Eh, Firdawsi dama lay bloqué ana Firdawsi ma bloqué ko yow. mi ngi ci ligne bi génnal. Eh, Firdawsi ci biti. sikk nga. sikk <laughs> sikkul nga li ma la xamal bugguma la ko waxal ci live bi génnal. Firdawsi loo bëgg ci réew ba 5 ma xool la di nga génn 1 Firdawsi génn. 2 <laughs> Firdawsi génn. riigu bi riigu bi la bëgg. <laughs> bondi la bondi. Firdawsi yow da bondi Firdawsi. Firdawsi génnal. tey rek nga génn. soo génnul nag ma wax sa tur génnal. Hmm. Firdawsi mii de kenn mënu ko fee génne. Firdawsi mii dugg na ba pare. bondi yow rek lay topp bondi. waaye Firdawsi lu ma leen war a xamal bu ko xamee ba pare nu muy safee. moo ma jaaxal mu dugg fii di déglu. kii sax na waay bu ma ñëwee Colombo seet si leen da ngeen di jël sama TikTok bi bloqué TikTok am. jeex na tàkk. ngeen xam ne dootuma gis su ne nga ne ko sëriñ bi bàyyi na live de nekkatu fi ndóor rek ngeen koy may. moom kay loolu lañ koy wax. ah waaye kii rek la wut nag. Adja Rasoul. waaw sëñ bi. yes. maa ngi lay ziare di la bëggee. waaye Adja jërëjëf waay. ñëw rek laay topp. Eh, topp nga ku baax waaye ta xam lu neex. mbaa li ngay jàng neex na ma ah moom kay moom fu ma la gis rek taxaw depuis bi gisoo maa ngi woon ci group bi bala nga woon dem Amérique noonu. waaw mooy groupe bu neex ba bu sax ba. Eh, waaw kay kon nga xam ne yow rek laay topp. <laughs> sinon man ma dugg ci oh. live mais sa bos moom macha allah. barki sëriñ bi yow koo jàpp mu dee. <laughs> ah. li ma jàngale yëpp yaa ngi koy pratiquer yow. non su la gisee damay bëgg no stress damay kontaan. Oh, man nag dama neex a bëgg nag bañ ma moom te tayu ko moom mënul nekk. non non sa waxtaan moo neex ak fulla ji nag sa waxtaan mm. moo neex. lu mm-hmm. mettit bu mu fekk ci yow da koy dindi sérieusement wallaahi man maay vitamine C wu génération bi. jaajëf yow kay raw nga vitamine C moom. <laughs> ñu ci live bi nuyu naa leen. Diop de moo fi ne. waxal waxu <laughs> ah Diop baal ma baal ak de. mais Adja Rasoul. Eh, waaw. ba léegi célibataire nga wala marié nga. ci diggante bi ñaari. oh ok. <laughs> ci diggante eh, bi laa nekk <laughs> na tàllalu na tàllalu mbaamu bankuwaay. waaw kay da ko dégg de. Fatou Niang. waaw sëñ Ahmed. li xaw nga fi yàgg maa ngi lay jégalu Niang baal suma xarit bi. ah amul problème man dama laa bëgg rek te yàlla tax. ndeysaan bëgg nga ku baax. <laughs> yow rek laay toog. Niang bëgg nga ku baax bëgg nga bëgg jigéen. lu ñu am jël rek baax de lu ñu am jël dañ laa bëgg te yàlla tax. ndeysaan oh. waa man suma jooyi fu ñu nekk tey. moo ma jaaxal daal na la yàlla defal jàmm rek. amiin ñaŋ jërëjëf. macha te taxawu la nak la fa yàq yeggu. amiin ñaŋ amiin. <laughs> aywa aywa kon nag nan leen joo leen joo tamit. ñaŋ ñaŋ suma xol tooy na trop. <coughs> yaa ñaŋ bi garab bi xam nga ban la. déedéet. bi mooy sox. Ah. ñan garab bi uh-huh. jigéen bu mënul am envie laalante boo ko naanee maanaam boo ci naanee benn kaas damay ragal nga topp koñ ne def leen liste. Ah, ba pare biiri jigéen da koy raxas bii boo koy naan doo am fibrom tii booy looy def fii. Tijaan soo uh-huh. lan ngay def fii. Tijaan ba jàng nu ñoo NUKE te amaguloo jabar am tali ñu war a wàññi. I see baax na bii mooy soq. Uh-huh. bii bu Amérique bi la. Mm-hmm. mais wópp law law law law law bii. waaw bii loo koy bii ko. am na Sénégal mais man Amérique dama leen di beral loxo bi Amérique la nekk mais gis nga bii bu fekkoon ne danga nga naan garab wala nga yàgg mballu xam nga sa siditi xaw a jeex daal bii moo lay résenir. bu fekkee jigéen boo xam ne nga da ngaa manque vitamine comme yaa ngi am jëkkër bu la naan rill rill te du la jox lu ko doy bii ngay naan te la war vitamine léegi bi am na Sénégal am na Sénégal la man suma garab yi am na Sénégal am na am na Amérique waaw ah, baax na kon naa ci wut oh Fatou wut si waay yow tamit nag te bëggoon naa sa numéro nag sëñ bi ah bëggoon naa sa numéro 78 la 471 57 01 mooy suma numéro personnel boo ma message léegi ma jàkkaarloog moom léegi. 78 471 57 01. ngi xaaral ma jëlaale ko 78 waaye jëlaale waaye boo ko jëlul baalu ma la waaye dema ci message. sëñ bi 78 ma jëlaale ko s'il te plaît 471 57 01 mooy sama numéro. 71 400. 78 471 57 01 du ma ko waxati de. 57 71. laa ilaha illallah ku la wax 71. yow mii li moo tax amagoo jëkkër ñàkkoo jëkkër yaa ngi ci diggante bi. 471 57 01. lii de laa wax. ah. Mm-hmm. non dama nekk di dégluwaale beneen téléphone moo tax. oh all ok that's fine man bëgg naa la dégg nga. waa sëñ bi amal taw féex tay siir. Eh, ñaan gi na jërëjëf Serigne Touba. T-boy. Tidiane soo network Gambie bi sa bañ na nga dugg suma live bi lan la Tidiane are you a virgin or you are not maa ngi laa jël network baa ngi bañ it's a clear indication that here is not your place huh. Hmm. Hmm, hmm. dama laa bëgg Ceesay ah message bi rëy na de maa la raw man ku ma ne maa bëgg rek maa raw laa ciy teg ndax mbëggeel ci boppam moo foor salaamaaleykum sëñ Ahmed maa ngi leen di nuyu di ziar maa ngi damay damay dugg si man moom ay live man mos si dugg si dugg mais yow damay dugg si live macha allah maa ngi tudd Mansour nekk Colombia mais bëgg na génnal ci li nga nekk su ma rakki xol nga naan ku saaga bloqué looy bloqué nit ñi bàyyi leen bul bloqué kenn bàyyi leen ñu saaga. waaw baax bëgg na soxla naa si affaire yi nag mais xam. gis nga yow mi may wooyee France boo ma wootee dama lay bloqué gis nga ma maa ngi live yaa ngi may seetaan ma joxe suma numéro nga may woo ma dérange boo ma wootee ma bloqué sa numéro te man ku ma dama lay fàtte. mais ma taan ak su ma paree live bi nga jël ma ñu waxtaan mais di insister te leer na leen maa ngi live boo ma respecté wul damay respecté su bopp de lu leer laa la wax musta koo gis. amoon xalifa maa ngi lay ziar bu baax. ah xalifa. sëriñu Nante di kontaan sa live bi rek. jërëjëf jàmm bu baax. non xale bu góor bi dama dama yaakaar ne est ce que moom moo ko tey bu dee li wax dëgg la. parce que tey bu fekkee li wax dëgg la noonu loolu loolu erreur la comme ni ko doon waxee jaaree ñëw fii na focus si boppam respecté liggéeyam da bàyyi xale yu jigéen yi xale jigéen dañuy tar laati quoi. Mm-hmm. bilaay amuñu benn njëriñ bu focusé si boppam bu amee xaalis jigéen bu bëgg si àdduna mën na ko am mais bëgg ñëw tey tey bëgg am euh, jigéen tey tey tey tey loolu mënul nekk koi dëgg la jigéen jarul muy muy mu bëgg sacrifice laay fam instant yi moom mbëggeel mbëggeelam si xale bu jigéen ba fàtte ay waajuram yi nga xam ne moo tax mu ñëw fii di daan dooleem ak hmm. dara jaru ko si àdduna. Hmm. waaye na xoolaat boppam quoi parce que jigéen daal vraiment man jaralu ma yenn sacrifice yi quoi. dëgg la jigéen bu ma dugg àdduna jaru dëgg la oh kii li wax dëgg la de waa kii kan la ki yónnee message bi kan la yéen a ngi tax ba suma. suma jabar mu ngi nii doon ma seetaan bëgg ma wax ak moom good night munuma ko maa ko naan bàyyil ma hang up mu ne déedéet. mais barke Seydina Mohamed bëgg naa la trop Seydi Ahmed Si. Oh. sama sama oh, oh. directeur bi mais mais mënuma fex ba dugg dimbali ma ma yëg boog ngir yàlla. man bëgg naa la bëgg naa la. de xale yu góor yi génn leen live bi. <laughs> kenn du <laughs> mën ne ko waaye taabaadaay jigéen ñi ñoo moom live bi ñu ne bu góor dugg. waaw effectivement góor du fi dugg. li ñuy déglu laa xamul man góor ñi. xanaa sop sop rek yokku nañu ah. ah gars yi lu lu lu baar ah. ah, mooy tontu noonu. mooy tontu moom ay vocal am yu baax la mu ne li bar bëgg la mbët bëgg maanaam yéen li ngeen bëgg. ñoom it loolu leen bëgg. kenn du ko dugal de bul dugal di góor ñi moom bu ñu dugg bu leen jël. non maanaam mënoo di dugal ba pare ñu lay dugal loolu mënul ne. non. tey suñu sëriñ bi kenn du moom asalaamaaleykum sëñ bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf man la Maxtaar New York maa ngi nii di déglu sa live bi nii waaye man TikTok bi nii you know am na famous bi di TikTok bi naa so du ma leen mën a dugg si live dama leen mën a watch rek di déglu yi waaye di ma leen mën a maa ngi déglu live yi non yaa garab moom dafa am si lu ma nekk la naaw nii soo ma si rek you dinaa la yónnee xaalis bi ma bi réew bi ak you know bi you know ak beneen bi soq bi you yeah, yep, you know, bola yep, kapag pag yun mo ba inshallah, you know, may yun na hadis bin, may address bin. Yeah, yang iwa halu halu am solo. It's it's like with fun, with comedy, and like you know, with play, with reality, you know, you know, we it. Yeah, thank you very much. You know, you're welcome. Achame, ci doo nekk yaa ngi si jàmm. si am dugal man tamit maa ngi si bi rek dugaloo boobu ba tey mosuma woote ci direct. Cheikh bi maa ngi bëgg a dugg boobu ba dugaloo ma yow tamit. non kenn du dugal maay dugalaate te dugal. damay ut de. waaw bu baax baax di a jox sa wàccuwaay bu baax di la wax que kontaan nañ trop si di gis nekk si écran bi di wax sa fête yi nga xam ni maanaam mënul génn si doomu aadama voilà te Sénégal xamul ay lem-lem wala jaaral si digg bi ñëpp xam li nga wax. wax que bonne continuation yow teel rek foofu baax na. Mhm. Euh, mon amour. oui. xam nga ne fii yaa fi ne. oh maa fi ne Ahmed sa numéro bi ñu la ko yónnee numéro la. whatsapp mooy 78 la 471 57 01. damaa jégalu nag kii message bi ma la envoyé man daal sama. koy yi dafa rëy rëy rëy ma xool daal bëgg lu ko wàññil parce que yéen bu ma seetal daal problème quoi. wallaay kii ñun ñi di yokk moom mu ne day bu baax a baax a baax ah man de dama jégalu nag ci message bi ma la envoyé man daal koy yi dafa rëy rëy rëy ba xool daal bëgg lu ma ko wàññil parce que jigéen bo ma seqal daal day am problème quoi. Oh. <laughs> man damay yokk du ma wàññi. désolé ñun dañuy yokk wàññi ma ne ko désolé walaay munuma munuma wàññi waa wàññi koy ni koy defee. moo ma jaaxal. moo ñu jaaxal. loolu jigéen bu ko antan rek. am na suma computer bi dafa soxla mouse ma dimbali ma with everything you need to help me as my wife to be you need to help me that's what I'm talking about. maa ngi nii Amérique mais tubaab yi daal su ma leen ko waree dañuy tiit mooy loolu koy bi daal sëñ bi ni mu toll nii nii nii nii am naa ko photo envoyé ko man dama yéem daal lool wax dëgg kenn gisul ma fii dama réer ci néeg bi ana ma loolu neexuma daal kenn gisuma sëriñ Lante bi ñoo ngi ca loolu nag war ci am jàmm si am na si non Jamra moom noo fexe suba moom noo fexe ma noo def ma dugal leen plainte moom non ñu def ba sëñ nante bi waa Sénégal ñàkk ko nii mu ñëw États-Unis toog fi nii non Thiam la non def ma tuwal ma envoyé leen plainte bi ba moom non non non non il faut mu tuwal. ana Maladio man naan Maladio benn yoon. Maladio bi fu ma ko tegoon. déet boo naanee Maladio ma ñàkk bul naan Maladio. ah même ma naan Maladio. parce que kii nee na. Ah. su génnee koy bu woy ko won ko tubaab bi dañuy daw ci laa xam ne waxu dëgg tubaab ba koy bu rëy. moo ma jaaxal. bu ma noonu Sénégalais yi gisee Sénégalais yi miin neen lu tuuti miin neen lu gàtt mais tubaab ba koy bu rëy du dëgg. kii de day farce day farce moom xam nga waa ji dafa duula dul ba duuli ëpp ko mënatu koo nëbbu mais kii moom dafa ëpp moom. parce bëgg de ku ma jàppale sama boy bi ni mu mel nii sëñ waa Atlanta mel ne ma malaajoo. trop parce que am bu ma bëggoon a wan ko waaye tubaab bi bu ko wanee dafa daw. ne ma koy bu toll nii moom wax dëgg yàlla man mosuma koo gis waaw koy bi daanaka sëñ bi toll na ne sama loxo billahi wallahi si Ahmed li ma lay wax nii duy caaxaan duy caaxaan de sans fan baaxul balaguma li wax nii réalité la dinaa ko photo envoyé ko yow sama koy bi mu la ko wanee da ngay tiit suma téléphone bi yàqu na non mënatuma jël message téléphone bi yàqu na waaye sëñ bi xanaa la wax Ahmed moom amul luy wàññi luy yokk la am dagg ko. avant xam ne ah, oh. oh, pare naa ci pare pare naa ci ci whatsapp yi dama sonn suma téléphone bi yàqu na bu ma yónnee sa ko yooyu mel ni loxo baal ma ko rek. loxo nee ko daal na ko dagg comme da kaa sonal. ah kenn musu koo gis waaye. doy na waa de. wuyaa yooyu. mais yéen kontaan naa ci yéen bu ma paree damay dem woy suma jabar dafay waaj a tëdd. ah waaw jabar moom mooy priorité. su ma paree maa ngi leen di woo right away. no problème. yàlla na seen jàmm yàgg ni ngeen ma bëggee laa leen bëggee. waaw thank you so much. you're welcome ngeen jëf. am na ku fi doon ñëw na ma wéyal ma bàyyi wéyal ma bàyyi wéyal ma bàyyi. dinaa la woyal baay yéen ñi bëggoon a dugg te mënu leen dugg baal leen ma ko gis naa leen mais mënuma jël ñëpp li tax nag nit ñi di bari ba mënuma leen a jël ci yéen la waaye du ci man yéen a ma bëgg su leen neexoon ngeen dem seetaan ni ñeneen def leneen mais man ngeen bëgg di ma déglu kon maa ngi leen di gërëm di leen sant Abdoulaye njaay bu rafaay soo ma woowaatee ma bloqué la woo nga ma benn yoon maa ngi wax nga woowaan ma yaa ngi may dara soo ko ñettalee ma bloqué la may ma ba ma paree maa ngi tàggatoo nga woo ma su ma mënee jël ma jël su ma mënut a jël bu ma jël mais soo ma abusé si suma téléphone dama lay bloqué te Cheikh Abdou Rafahi Mbacke mi nga bëgg ba yokk ko sa tur dafa tey dafa dal teel te dal donc maa ngi wax ne <clears throat> guddi gu jot minuit heure senegal ñëw leen ci sëriñu nante yi ngeen partagé ko ma ñëw waxtaan ak yéen di leen waxal ngeen may dégg. ngeen di jëriñu di yokk may yokk waxtaan wii commercial mu ngi ci damay jaay jaamu yàlla mu ngi ci maa ngi dimbali ay nit ñuy wax seen naxar ma di leen jàngal ñuy xam ne ñuy def képp koo xam ne nag neexula la forcé wu ma la woowu la bañ naa ko ba compte ya ma amoon senegal yëpp laa tëj ubbi bu Amérique ne nandite yi rek laa soxla ku dul nandite nag amal jom nga toog sa boor bul ñëw suma boor oowu leen soxlawu ma leen léegi nag wax ji mënta bari ba ngeen fàtte ne lii régu la tudd pour guddal koy réyal koy rek la duñ ko def ci awra awra ci jumbax la dooree ba ci óom déedéet koy laa wax bu fekkee ne den laa xarafaloon sa coppare wala li nga am ndaw bu ñu lay màccal doo ko yëg nga bëgg sa coppare du rëy boo ko ci diwee moom dina duuf ba pare dijj te coppare bu dijj feeling la ci nga su góor demee bay waaj a daan coppare bi bu dijjee ba taxaw mu koy xoos noonu beneen neex neex boo xam ne suba dinaa ci ñëw incha allah rabbi lii mooy régu rëyal guddal koy diw la ak pommade original bi maa ko am maa koy jaay ku xamul koy mënta guddal koy lii mooy doy waar ak a la bii pour kattante rek la katt yu yàgg bii laa tuddee junnee puus dangay ngay roof benn ñaar ñett ñeent juróom ñaar juróom ñett ba junni nga doon a daanu mooy bu ndaw bi bu mag bi moom xaw ma ñaata puus la moom am na fi mu ngi nii Amérique bii mooy soq soq mu ngi nii xam ngeen mbër mu mag mi nekk Kaolack eh, Pikine nekk tudd soq moom laa ko tuddee mais soq bii nag bu Amérique la <laughs> gàtt saf laa ko tuddee <laughs> maanaam soq moom ñetti yoon rek nga ko mën a naan ci semaine bi mais ku ci am jabar buy clock in eight hours dimbale ma ngir yàlla bul jënd soq su mënta dem liggéey bil si day tardé su boobaa ya kër gi yàqoon na taman defar kër moo ma tax a jóg kon bu coow li bari ba ngeen fàtte ne soq mooy garab gi gën ci mbooleem garab soo boolee àndalaa buri boole régu boole doywaar yépp bii moo leen mën ni mu tuutee nii cent dollars lay jar mais eh, boo ko jëndee ba naan ko benn yoo <laughs> paaba université ma jaay ko ko bën set mu ne ma <clears throat> tu sais avec tout dans la internet tu balagues mais tu l'information juste et réelle ma ne ko waaye pas dimbale ma dégguma français can you speak English mu ne ma non attends attends <coughs> mais ma ma teg suma journal bi ma wax ak yow en fait li nga ma jaay ne soq tuddul soq walla tudd ma ne ko pas boo gaawaloon olof bi ma dégg li ngay wax <laughs> mi mel ni kuy joxe lecture en fait je t'encourage je beaucoup parce que sa courage et sa jàmbaar sa fit et sa éloquent ça m'a dépassé vraiment ma ne ko epa eh, wax ma wolof ngir yàlla yonent bi jaay la soq nga naan ko bërsën nga bëgguma rek ci français mënut a tax ma dégg français if you speak English I can understand but I don't understand French lii de laa ko wax paa bi ndeke daf ma doon remercier 17 minutes ci soq bi mu naan ti sais depuis cinq ans paa bi nee na depuis juróomi at yëgul boppam <laughs> nee na soq bu ma ko tuddee di soq ndaa ko tuddee wal <laughs> mu ne ma il rajeunir les immune système de ton corps et tout ce que tu veux pour le faire l'amour <laughs> ma ne ko eh pas dugg naa coow ma ne ma nekk fa ne naan ko oui c'est vrai c'est vrai totalement vrai tout à fait tout à fait man ma jàpp ko jël tout à fait tout à fait oui c'est vrai paa bi di ma benn bennoo di ci ci jërëjëf li ma jaay baax na <laughs> jaru ko na ma ne merci mais paa bi mooy intellectuel yu yàgg yi jël temps par temps tu sais si tu brûles l'eau et tu deux coups de verre et fais puits dans les casses et un peu, il te cinq minutes et bois le haut. Oh, <laughs> Sénégal va rendre hommage à toi ma ne ko ma ne ko <laughs> pour Sénégal rendre ma mais paa bi daal xamatuma <laughs> mais remercier na ma ci soq <laughs> régu bi moom laa jaayoon benn waay mu ne ma seen baax dañuy dóor rek koy kenn du ko yokk ma ne ko man de bokk ma duulkat yi mu ne ma yàlla baax na dinaa essayer ma ne ko lu ñuy essayer da ngay gëm jënd gëmoo nga tegal ma suma alal man tam ma ñàng ma non non ma ne ko ñaar sax ngay jënd yow waaye jënd yaa ma ne ko naka koy mu ne mu ngi màgg de mais xale yaa fi après xar mi neen ko jox ngooy ma ko waxuma xar koy bi laa war rek mu ne ma keraj ko mu ne ma seex bi kilifa am na nooy waxee téléphone yi dañu foor xale yaa ngi dégg ma ne ko xale ñu ngi dégg baal <laughs> koy laay liggéey ku ma woo ci koy ma wuyu la ci koy nga <laughs> ne ko nga baal ma je suis vraiment désolé waa ji na ma <coughs> sa garab yi day wax dëgg yàlla su ma ko ñeme woon damay dellu tës gi ma demoon bañ boole maa man ma ne yaa fi gën mais su ma demee deen naa sëriñ bi moom ma faj ma ne ko déet yow dem nga tës ne da nga le ñu boole maag yow doo dellu tës na leen sëñ bi li muy jaay baax na nit ñi ñëw yaa ko amee njukkal nit ñi waa ji bët bu set mu indil ma client bët bu set mu indil ma client ndeysaan am na doom ba tuddee doom ji mantulaay cubandooy doom ju jigéen la am dafa demoon tës wax problème am ay dara ne xam naa kenn ku dëggu Cheikh Ahmed Cissé ñu boole koog man <clears throat> am na boo xam ne nag am na boo xam ah gars yi seen bopp ñoo ñëwoon wax ci suma garab yi ne garab gi nii la mel naa la mel wax lu ne ndooy baan ci boppam moo ma woo ne ma dafa am ku la fi boole mu ne yow say garab baaxul. bu coow bari nag da ngeen fàtte ne. ma ne ko suma garab baaxul mu ne ma waaw ma ne ko d'accord léegi ni ñuy def mooy dama leen di may ngeen essayer. bu fekkee ne essayé ngeen baaxul bu leen ma suturaal dem leen ci nit ñi ngeen wax leen ne suma garab yi baaxul waaye su fekkee ne baax na nag ñëw leen ngeen wax nit ñi ne garab gi baax na loolu laa waa waa RFM da leen man bëgguma sutura da ngeen di ñëw ngeen wane ne li ma leen jaay baax na bu baaxul ngeen ne baaxul su ko defee nit ñi xam nañ leen wara def lii de laa leen wax lii laa leen wax vidéo bi laa seet nii waaye mënuma koo gis gisuma waaw mu ngi nii. Ban dafa booy ba leen lu leen wax. fen bañ na seede. mu nii. benn yi war. ak biteel yi nga xam ni moo war. waaw buñ la ko joxee doo mas ni. biteel yoo xam ni. Ah, boo ko yoree doo mas ni. biteel bi yoo fi bàyyi woon. Eh. waa jooy xalaas boobu noonu. mais nag Ndiaye abaa abaa xam nga man. maanaam nit moo demoon. boole ma RFM ne garab yi may jaay baaxul bi ma ndooy baan woowee ma ne ko man awma tontu parce que mënuma am xam-xam xam kooy xam luy yëkkati kooy koy bu ndaw lu koy réel yàlla def ma xam-xam boroom xam-xam ma am bagage ba pare ñuy wax may tontu su ma liggéey mooy tontu dama leen di may ay butéel ngeen toog ci antenne bi su baaxul ne leen man dulkat laa fenkat laa ngeen ñëpp bàyyi su may garab su baaxee coow leen ko ca kaw nit ñi di ko dégg ndax lu baax den koy siwal lu bon den koy siwal nii la demee léegi nag déglu leen Ndoye Bane ak Aba gars yi waa RFM ñu wax. moom damay wax li nga xam ne moo fi ne. waa ji ne woon na dinaa leen yónnee ay buréel ngeen ñam. mu boole maag benn waay. waa ji yónnee ma ñaari butéel. waaw déglu ma ma ñëw. déglu ma rek maa ngi ñëw man xam nga man moom fa ma jëm raglu ma ko. mbir yaa leer waa ji ñaari butéel góor a baana ko jël si. góor a ba mel. góor moom moom laa yebal mu dem jëli butéel yi. waaw may dem di defi wareef. bu góor a ñam butéel yi. Eh, waaw eh. xaaral rek maa ngi ñëw. Eh, xaaral maa ngi ñëw. waaw leen daal xam naa ko ci. Hmm. abaa butéel bi ku nar a xëy liggéeyi bu ko naan. Ah, li ma leen di xamal ci butéel yooyu. baan bu dee baax na. li ma la li ma la li ma la waa ji waa ji la baax na de. abaa àjjana maa ngi lay nuyu bu baax a baax moo tax la sama li ma leen ndax daal leer li ma mën li ma mën a yem mooy abaa abaa eh, abaa ah. bu dee bu dee yow bu dee. c'est que Bart euh, Bart boo ma sama tur. waaw wax. abaa wax. <laughs> li ma mën a xam mooy. butéelee baax na de abaa bu ñu fi jógee man de. abaa wax ba man de. Eh, temps ma ko lu tax tey liggéey si woo. <laughs> booy baleen lu leen wax ngeen weddi ko baleen dëgër bopp. li ci wax Ban wax de. abaa baax na ngeen topp rek ngeen dëgër bopp. bu dee lu nag ko ci ko xam ah. en tout cas bi ñu fi jógee de butéel yi. butéel bi baax na de maa ko mënoon jógee abaa. Aba maa ko waroon jëli. indi ko fii indi naa ko. ba léegi na xamul ne eh, Ban. góor a Ban. da nga mel ni ah. <laughs> Ban moo jëli butéel yi. Ban. te moo ko ñam. mooy dawal oto bayal mu droit bi ma ba Ban mu butéel bi ku koy naan na ko naan dix-huit. Ban lu jullit ñi di sant chrétien yi ci pag mi ci ngalax mi. waaw bëgg naa la koo sant man ci butéel bi. waaw bëgg naa la jox kopp. <laughs> non butéel bi dox ma ne ko man bëgg naa la jox sama kopp. nan ah, nan ngaa sonn nag nan nan xoolal nan nan nan ngaa sonn nag ndax. ndax baax mu butéel bu baax. sama kopp daal ma bëgg naa la ko jox moom. waa jànga Gàmbi. waay butéel yi defe naa mi ngi Ndakaaru gi baax na de. li ma ci jaaxal ah? li ma jaaxal ah, parce que borom tubaab baax na man su baaxee ma ne baax na. waaw ah, butéel cinq la joxe deux. ah il paraît góor yi benn bi butéel yi moo manqué ci dëkk bi. góor yi eh, benn bi. Eh, eh. non non. beneen bàyyi ci oto bi. ah waaw loo may ñaanee jox amaguma xaw ba ñu jox ma rek. ñu ñaan kay bari rek. yi àndalaa buri lay wax maanaam man képp ku may tendance ci sumay garab dama ne bu baaxut bu ma kenn suturaal wuruma sutura ñaanuma njekk ñaanuma teraanga dangay ñëw ba ci man fekk ma ci live bi na ma suma butéel a ngi nii suma réussite ngi nii baaxut delloowoo ma suma xaalis gis nga fenkat yi nekk ci dëkk bi bu ñu leen weeroon rek nit ñi am jàmm

3966332 bu dee Amérique nag nga ko bëgg man ngay jot man ndey mbill gi ma jaay la waaw numéro bi nga ko mën a woowee su dee Amérique 929 867 8643 nga woo ma jot ma man fay ma ma jox la ñi nekk Paris woote leen senegal ñi nekk Europe woote leen Sénégal ñi nekk ci yeneen dëkk Afrique woote leen senegal ñi nekk Amérique ak Canada woo leen ma man man nday mbiligi 929 867 8643 929 867 8643 nga woo ma directement ma jaay la régu mu guddal sa kooy bi réyal ko bu dëngee mu jubbanti ko bu oyofee mu diisal ko ma jaay la doy waar bu ndaw ak magic bu mag bi nga xam ne Amérique rek la doo ko gis fenn ci àddina ma la soq bu dee da nga yàgg naa ni garab da nga jabet am tension wala yow daal mënatoo dara pare nga bii mooy ndeyi mbili gi soq kon jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fayta defal leen jàmm suma live ku ko tarre demal YouTube di ko fa fekk ak Facebook minuit heure Sénégal bët bu set damay live jërë ngeen jëf maa ngi coupé live bi am na ko waxoon ma woyal ko bàyyi. itam jamoo gën xiir gaynde mboo yëppuy buur karaama yaa gëne rëy du si gol fay door hay foor mel ni jaani saamaan rahmatoom gëna xiir ca faqiir ak miskiin suqali nga sunu ruu ya ca hulmaan ni ñoomin kabu mbaal jën ba wer sandangaan salima kaa koko tooy be bam xola samaaw war naa jug bàyyi càggante topp say waaw rabul jalila ko fa fal jox ko man torabaan fal ko muy fali doomam si wal na labdaan jërë ngeen jëf ngeen